أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gannaaw bu ñu leen nuyoo bunt bi ñu war a waxtaane mooy al aqidatu saxiixa wa asaruha ala al fardi wal mujtama maanaam pas-pas bu wér ak jeexiit effet bi nga xam ne dana ko def ci nit ki di ko def itam ci biir mbooloo mi muy société bi pas-pas bu wér buñ ko waxee mooy pas-pasu tawxid ndax lépp lu doom aadama di gëm rek loolu pas la waaye ba ca wér nag mooy pas-pasu te mooy pas bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekkoon ak i saxaabaam ba suñ boroom wax ko ne ko fa in aamanu bi misli ma aamantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaaq suratul baqara suñ boroom ne ko képp kuy woote woo ngëm bu fekkee gëm na lu mel ne li nga gëm yor na pas-pas bu mel ne bi nga yor kon kooku ak ngëmam walaa bal na kooku gindiku na waaye su fekkee nag wan na gannaaw pas-pas bi nga yor yàgg say saxaaba am leneen lum mu ca dugal lu ca bokkut kooku kon mu ngi ci ak juuyoo duutu mën a ànd àndateeg mbooloo mi kon loolu mooy pas-pas bu wér mooy pas-pas boo xam ne moo moom la maanaam laa ilaha illa ëmb te kalima boobu li mu ëmb mooy dàq lépp loo xam ne lu ñuy saxalal nguur la teddu suñu borom tabaraka wa taala nga dàq ko ci moom saxal ne nekk buur yeyoo ñu jaamu ko kooku suñu borom tabaraka wa rek mooy ki ko am pas-pas boobu nag ay màndargaam bokk na ca al kufru bit mooy lépp loo xam ne ñii ngi koy jaamu di yaakaar njariñam walla ñuy ragal loram te loola bu suñu boroom tabaraka wa ak leneen lu mu mën a doon bu fekkente ne jaamu goge ñu koy jaamu moom daf ko gërëm di ca woote sax pour ñu jaamu ko boobaa moom ci boppam taaxut la te taaxoot ka jiitu mooy iblis ak nag ñi nekk ci gannaawam ñëpp bu fekkee itam moom sax am na nit ñu koy wax ne moom la ñuy jaamu waaye moom nanguwul jaamu ga kon mu moom bu boobaa du taaxoot waaye nag ñey jaamu moom lañuy ñuy jaamu taaxoot la ndax ka ñuy jaamu duutu moom ndax melokaan yañ ko jox gannaaw moom reconnaîtreul ne moom noona la mel kon ñooña leneen la ñuy jaamu waaye du moom mi mel ni isa alayhi salaam ñii wax ne ñoom moom la ñuy jaamu di wax ne moom doomi yàlla te moom mu ne indi abdullah man jaamub yàlla la kon boo ne yow ki ngay jaamu doomi yàlla la kon moom waxoo ko keneen ngay wax waaye moom du moom ndax wax na la moom lim doon te yow nee nga jaamu woo doon abdullah mais ku doon waladullah ngay jaamu te moom nee na la man abdullah la indi abdullah kon moom du taaxut waaye ñay jaamu nag lañuy ñuy jaamu moom taaxut la waaye du moom leneen la loo xam ne ñoo ko fabriqué ci seenum xel ci seeni xalaat teg ko di ko jaamu tuddee ko ko nag moom waaye fekk moom du moom kon la ci jiitu ci pas-pas bu wér al kufru bi taaxut borom bi ne fa man yakfur bi taaxut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wusqa lan fisaama laha wallahu samiun alim suratul baqara ay ñaar téeméer ak juróom fukk juróom-benn suñ borom ne képp koo xam ne weddi nga lépp luy taaxuut te moo lépp lu nuy jaam rek te du yàlla moo xam nit la wala ay obse la wala jinne la wala lu mën a doon ànd ak nag nga gëm yàlla nag doog a gëm yàlla parce que boobu yakfur boobu mooy tolloog baatu laa ilaha wa yu'min billah mooy tolloog illa allah aaya boobu laa ilaha illa allah lay firi laa ilaha li muy tekki al kufru bi taaxuut wa man yakfur bi taaxut illa allah wa yumin billah kookee day téye na ci buum gu dëgër faqad istamsaka bil urwati al wusqa lan fisaama laha buum goo xam ne suñ borom nee na du dagg benn yoon ñaareel ba ci pas-pas bu wér itam pour mu mën a am faw tajridul mutaabaa li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam am mooy topp gu mat sëkk yonent bi alayhi salaatu salaam ci lépp loo xam ne yaa ngi koy fas ak lépp loo xam ne yaa ngi koy jëf ci ay jaamu yàlla ak lépp loo xam ne yaa ngi koy wax loolu nga di ci roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam soo ci royee keneen ku dul yonent bi alayhi salaatu wasalaam dootoo am pas-pas bu wér borom tabaraka wa taala moo tax mu wax ne yaa ayuha alladina amanu yéen ñi nga xam ne dëggu ngeen ci seen ngëm ndax ngëm ji koy woote woo bari nañu lool waaye ñi ci dëggu ñi ci dëggu tolloowu ñoog ña koy woote woo ñëpp ñi ci dëggu ñoo gën a néew ña ca dëgguwul moo tax borom bi ne wa maa yuminu aksaruhum billahi illa wa hum musrikuun nee na ñu bare baree bari li ëpp ci nit ñi bu ñu déclaré gëm yàlla itam dañ cay boole bokkaale dañ cay boole bokkaale ak yàlla gëm leneen boole ci te boobaa nag dootu doon kon ngëm goo xam ne gu walaabal la mu ne yéen ñi dëggu ci seen ngëm atiu llaha wa atiu rasul na ngeen topp yàlla topp ab yonentam wa ulil amri minkum ak ñi nga xam ne ñooy ay njiit ci yéen ñu jële ci abi hurayra radiallahu anhu anna rasul allahi sal allahu alayhi qaal kullu ummati yadxuluuna aljannata illa man aba qaalu ya rasula allahi wa man yaba qaala man ataani daxala aljanna wa man asaani faqad aba rawaahul buxaari yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne sama xeet wépp ay dugg aljanna lu ci dul ko bañ ñu ne ko ana kan mooy bañ a dugg aljana ya rasulallah mu ne ku ma topp day dana dugg aljanna waaye ku ma moy nag kooku moo bañ a dugg aljanna kon sart la ci mën a texe mën a am pas-pas bu wér mën a tàbbi aljanna faw nga topp yonente bi alayhi salatu wasalaam ba tax boroom bi ne wa in tutiuhu tahtadu su ngeen ko toppee gindiku ngeen ku topp yonente bi alayhi salatu wasalaam tegu nga ci yoon wi gindiku nga borom bi del wax ne falladina amanu bihi wa azzaruuhu wa nasaruuhu wattabau nuur alladi unzila maahu ulaika humul muflixuun suratul araf suñ borom ne ñi ko gëm moom yonent bi dëggal ko nangu neb yonent la waaye ñu fonk ko màggal ko di dimbali sunnaam jamono bu ne ñuy def loo xam ne day tax sunnaam gën a jëm kaw topp lumière bi nga xam ne moom laa wàcce ci moom wattabau nuur alladi unzila ma'ahu leer googu te mooy alwaxyu di alkitab wa sunna suñu borom nee na ñooñu rek kay tax ulaika hum almuflixuun ñooñu ñooy taxe kon pas-pas bu wér moom ñaari xaaj yooyu la bu njëkk bi mooy wéetal suñu borom tabaraka wa taala doo ko bokkaale ak dara ñaareel ba topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam toppin woo xam ne moom nga jiital ci topp yépp topp gi nga koy topp doo ko topp keneen loolu mooy tax nit ki mën a am pas-pas bu wér bokk na ci ay màndargaam nag moom pas-pas bu wér muwaalaatul mu'miniin wa muaadaatul kaafiriin mooy féete ak ñi gëm yàlla ñu nekk ñi nga xam ne danga leen a bëgg nekk ñi nga xam ne danga leen di soutenir di leen dimbali waaye dëngoo ak ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla wala ñu dañoo bokkaaleeg yàlla ak doonte luñ la jege jege ci mbokk li feeg mënoo sa pas-pas mën a gulaa eggale ci ki la jege ci mbokk ak lu mu la amal amal njariñu àdduna nga mën koo ba ngir ñàkk gi mu ñàkk pas-pasu tawxiid li feeg eggoo ci néew boobu amu ko pas-pas bu wér borom bi ne yaa ayyuhal lazina amanu bu dee xool alxuraan lépp loo xam ne yaa ayyuha allazina amanu moo ko jiitu rek la cay tegu bu dee lu ñuy def la boo ko deful sa pas-pas du wér bu dee lu ñuy bala boo ko bawul sa pas-pas du wér ndax dañ laa woo ne la defal nangam defoo kon bandoo da nga bokkatoo léegi mu ne yaa ayyuha allazina amanu laa tattaqisu abaakum wa ixwanakum awliya in istahabu alkufra ala al wa man yatawallahum minkum fa ulaika humu zalimun suratu tawba ay ñaar fukk ak ñett borom bi ne yaa ayuha alladina amanu ñi nga xam ne dëggu ngeen ci seen gëm laa tattaxisu abaakum wa ixwanakum awliya bu leen jëlati seeni baay nga baay li gën a jege nit ki la ak seeni frère seeni mbokk nee na di leen def ay xarit di leen def ay péete ñu ngeen faral in istahabul kufra alal iman bu fekkee seen mbokk yooyu kéefar moo leen gënal ngëm ñoom dañoo tànn kéefar nee na na ngeen leen bax mu ne wa man yatawallahum minkum ku féeteeg ñoom nag def leen xarit ànd ak seen kéefar googu nee na kookee day bokk na ci ñi tooñ fa ulaika hum azzalimun ñooña ñooy ñi nga xam ne ñoo tooñ mu del si wax ne yaa ayyuha allazina amanu laa tattaxisu alyahuda wa nasaara awliya baaduhum awliyaau baad wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha laa yahdi alqawma alzalimin suratul maida aaya juróom fukk ak benn suñu boroom ne yéen ñi dëggu ci seen ngëm ba tey yaa ayyuha allazina amanu lay jiital de laa tattaxisu alyahuda wa nasaara awliya bu leen jël yahuud yi ak nasaraan yi def leen ñoo xam ne ñoom ngeen seen i allié lañ ñoom ngeen féetal ñoom ngeen àndal ñoom ngeen di dëgëral baaduhum awliyaau baax kenn ku nekk ci moroom ma di dëgëral ka ca des suñ boroom ne ku ko def féeteeg ñoom ci ñoom la bokk leen doonte tuddewul boppam ab yahud wala nasaraan jullit lay tudde boppam mais moom ñooma bokk ay position yi ñuy jël moom ñooma ànd la ñu nekk nee na ci la bokk wa man yatawallahum minkum fa innahu minkum kon loolu bokk na ci mandargay mën a am pas-pas bu wér intérêt yu lay ñooñu mën a amal nga mën koo dagg mën koo muñ féeteeg yàlla ndax lépp loo xam ne ñàkk nga ko te ragal yàlla rek moo la ko tax a ñàkk suñu borom tabaraka wa taala dana la ko wuutalal mu ne wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal allah fa huwa hasbu ku ragal yàlla ragal yàlla mooy kii nga xam ne fu ndigalul yàlla ñëwee rek duutu xool ndigal li bu ko defee lan moo ko ciy fekk da koy daal def rek moo tax mu ne jafe-jafe bu mu nekk yàlla dana ko ci génne wërsëg wu ko loolu xañ itam suñu borom tabaraka wa taala dana ko wërsëgal wërsëg woo xam ne foogu ko woon jaa yaakaarul woon ne wërsëg woowu dana ci mën a jot fa mu doon yaakaar wërsëg wa te foofa du fu neex yàlla mu bàyyi ko suñu borom dana ko andil feneen wërsëg woo xam ne foogu ko woon loolu nag ku dëggu ci ngëm yàllam dëgg moo ko mën a def bokk na ci màndargay pas-pas bu wér itam gannaaw pas-pas bu wér lañu wax il faut ñu tudd ay màndarga yi koy wane ba kenn ku ne boo gisee sa bopp ci loolu gis na sa position loolu la nga xam ne am nga pas-pas bu wér su fekkente ne nag du loola nga corriger sa pas-pas defaraat ko moo tax suñu pas-pas toujours dañ ko war a di corriger ci alquran yaa ayyuhallazina amanu yi ci alquran yooyu kenn ku ci nekk war nga di ko nafar bu baax ba xam la mu santaane loo def la wala loo pare pour def ko la wala la mu tere loo bàyyi la wala loo pare la pour ba ko bokk na ca raddul xilaaf wa nizaa ila kitaabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam maanaam su juuyoo amee ñaari nit juuyoo wala ñaari mbooloo ñu bàyyi seeni gis-gis ak seeni xalaat waaye nangoo delloo mbir ma ci alquran ak sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam lu ca leer ne loolay dëgg rek yéen ñëpp ngeen fekk si loola ndax dëgg moom genn rek la kon bu ngeen juyoo rek am na lu ci dugg lu dul dëgg am na ci ku féete ci côté boo xam ne du dëgg bu ngeen bàyyeekoon seeni bànneex nangoo del si ci alquran ak sunna rek da ngeen di àndat mu ne fa in tanazatum fi shay'in moom it yaa ayyuhallazina amanu la jiital fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila allahi war rasul in kuntum tuminuun gis nga mu andiwaat in kuntum tuminuun billahi wal yawmil axir gis nga kon sartan la ci iman sa ngëm mën a walaabal nga nangu boo juuyoo delloo ko ci alquran sunna kenn ku ne génnee sa xalaat ñu dellu ci alquran ak sunna rek librement lu mu wax rek ñu jël loolu bañ caa dugal farfarloo bañ caa dugal leneen mu ne in kuntum tuminuuna billahi wal yawmil axir dalika xayrun wa axsanu tawila nee na loolu day moo gën te itam ak mujjam mooy gën a rafet mu dellu wax ne innama kaana qawla al muminin gis nga nee na waxi ku gëm yàlla ida duu ila allahi wa rasulihi li yaxkuma baynahum suñu leen wooyee ci yàlla akub yonentam ngir mu àtte seen diggante woo leen ci alkitab wa sunna alquran ak sunna yonente bi alayhi ngir mu attee diggante bi luy doon seen tont an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun suratu nuur aaya juróom fukk ak benn suñ boroom nee na waxe ku gëm yàlla ku gëm yàlla la wax de waxul nag koo xam ne ah, day woote woo gëm yàlla waaye gëmul yàlla ndax bu dee gëm na yàlla it ma ngay bokkaale te bokkaale moom su xasee am rek ngëm gi wala bala tu tuddatul ngëm fa yàlla kooku duñ ko tuddee mu'min mais musrik lañ koy tuddee waaye ki gëm yàlla dëgg nee na su ñu ko wooyee ci alquran ak sunna ngir mu àtte digganteem ak mbokkam nee na lay doon tontam mooy sami'na wa na dégg naa li ñu wax mu bàyyi ko ci alquran ak sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam te dinaa ko topp kon bokk na ci mandargay fas fas bu wér say mbir nga nangu koo delloo ci alquran ak sunna te bañ koo delloo ci lii laa fekkoo nag nit ñu rëy ci say bët nga naan nangam la ñuy def kon ñooñu lu ñu def dëgg la bàyyi fi alxuraan ñooñu du ñu nattukaay nit ki du nattukaay waaye alxuraan ak sunna mooy nattukaay bi nit ki kay su dëppoog alxuraan ak sunna ci la xam ak mbaaxam moom waaye am ñu rëy ci say bët ba su ñu defee dara rek wala ñu jël benn taxawaay ci mbir dootoo dellu ci alxuraan dootoo dellu ci sunna da nga naan rek kon loolu dëgg la comme loolu la di wax wala comme loolu la diw def loolu ku yor lu mel noonu yoroo pas-pas bu wér yoroo pas-pas bu wér bi nga xam ne mën naa jeexital ci defar nit ki defar itam euh, société bi parce que boo gisee ñuy jaaxle pas-pasu lislaam jullit ni mu war a mel ba noppi ñu gis comportement bi jullit ñi yor wuute lool ak pas-pas bi ñu waroon a yor loolal te ñoom ñaar dañoo am relation dañoo war a ànd mu ngi mel ne reeni garab gi ak xobi garab gi ñoom ñaar dañoo war a ànd garab gi li ngay gis muy naat xob yi di verse nii li ko waral mooy reen yi moo nekk ci ndox ba dem soo bëggee garab gi naat sax ndox mi ci reen yi nga koy sotti ci suuf nga koy sotti moom moo koy alimente mu dem ci kaw su ko defee mu naat ñoom ñaari ñoo ànd ñoo am relation boo daggoo reen yi daggoon reen yi suulaat garab gi bu duñ am ñetti fan ci xob yëpp wowuñu xob yëpp dañuy wow koŋ te laaloo leen mais dañuy wow koŋ ndax li leen doon dundal loolu nga dagg jullit bi moom itam ak comportement bittim bi ngay gis lu sikk ci pas-pas bi rek dana feeñ ci comportement bitti bi boo gisee mu mën a wax lu dul dëgg wala mu mën a wor wala mu mën a sàcc wala mu mën a naan sàngara wala mu mën a njaaloo loola la ko waral mooy pas-pas bi ko doon tere loolu dox digganteem ak loolu moo fa nekkatul wala moo feebal faiblesse boo xam ne eggatul ci dégaret man koo tere mu def loolu wala mën koo pousser mu def li borom bi tabaraka wa Ah, digle moo tax kon jullit ñi jamono bu nekk war nañuy réussir waat seen pas-pas ci alquran ak sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak siira yonente bi alayhi salaatu wasalaam bokk na ci mandargay pas-pas bu wér itam taxaw ci di digle lu baax ak tere lu bon al amru bil maaruf wa nahyu anil munkar a jullit dafa war a am fiir dafa war a am yëg-yëg ci yu metti yi am mooy yàlla yi am daf ko war di tuuse mais soo demee ba mooy yi ñuy def tuuse tu la amoo ci benn soxla te nga naan loolu garaawut loo romb nit di ko def nga ne garaawut li muy tekki kon mooy pas-pas bu dëggu dëgg dëgg nekkatu ci yow ndax borom bi tabaraka wa taala li mu waxoon taamuruna bil maaruf wa tanhawna anil munkar wa tuminuna billah ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnas lu leen may qualité boobu taamuruuna bil maaruf wa tanhawna anil munkar wa tuminuuna billah yéenay ngeen ji xeet woo xam ne ma sees na koo génneel nit ñi maanaam li ngeen di xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam li muy jariñ doomu aadama service bi mu rendre doomu aadama amul beneen xeet boo xam ne defal nga doomu aadama lu xol noonu moo tax ñuy xayra uma du xayra umma rek ci ne dañoo leen a gën yi juddu wala dañ leen a gën temps bu ñu ñëw époque bi ñu ñëw déedéet mais li ñuy def la ci la ñuy amee afdaliya boobu ma ne ku la ëpp service boo xam ne moom lay rendre nit ñi kooku moo la ëpp njariñ ci nit ñi da ngay dégg ku ne diw moom a gënal diw ndax lam koy defal kee defalu ko ko njariñ lam ko amal kee amalu ko ko kon afdaliya bi foofu la nekk te mooy la leen may loolu nag mooy digle bu ñuy digle lu baax ba ñépp mën cee jot ku ko xamul woon xam ko jot ci ndax lu baax boo ko xamee ba noppi itam te doo ko jot li ah ki nga dendal moom sa mbaax googu moom du ci jariñu ndax mbaax gi xamaloo ko nan lay def ba baax moom su nekkee ci naka su dul noonu lu bon itam lay ndimbalam mooy nga jële ko ca loola leeral ko lor jooju nekk ci lim nekk ba mu jóge ci loolu koo ko defal defal nga ko yiw woo xam ne kenn mënu ko defal yiwu ëpp loolu yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ne man raa minkum munkaran fal yugayiruhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dalika adaful iman xoolal ni mu ko lënkaleeg iman kon amru xaaj la ci iman mu ne ku gis ci yéen lu bon ak degere bu mën a toll na xool mu ca toll du caa génn bu ko neexee di ndég loxoom bu ko neexee di ndég bu ko neexee déedéet yow yaay xool fi nga ci toll yow da nga gis lu bon loo xam ne yow fi nga ci toll mooy wax ko rek waaye mënoo ko dindi doole ja koy dindi pouvoir ba koy dindi yow yoroo kon waaye toll nga ci am nga waxukaay wala doon nga ku ñuy déglu koo xam ne soo ca waxee dana jariñ mën naa dem sax ba dugg ci nopp boroom pouvoir ba ko mën a dindi moom mu dindi ko kon nga natt fa nga ca toll bu dee am nga doole ji dindil bu dee mën ngaa wax waxal bu fekkee ñaar yooyu yëpp mënoo ko nag mu ne kon na ko naqarlu ci xolam ne gis nga mu ne loolu mooy dëgëre bi gën a suufee ci ngëm yàlla kon ngëm yàlla ay dëgëre la dafay dolliku ak di wàññiku dafay dolliku ak di wàññiku mooy nag fii nag position bi gën a feebal mooy li naqari li baaxut mënoo ca dara lu mooy naqarlu ko ci sa xol li muy tekki kon mooy même étape boobu soo ko passé nag kon mooy ngëm nekkatu parce que abda aflax bi gën a feebal ngëm bi gën a feebal soo looy am kon dara du fa ne mooy kon saa yoo gisee lu bon naqareetu la kooku kon moom ngëm ci boppam moo fa nekkatut ngëm ci boppam moo fa nekkatut ndax ngëm ga gën gaa feebal nga mooy mu naqari la waaye nag mënoo cee wax mënoo cee def kon loolu digle lu baax ak tere lu bon te lu bon bala nga koo mën a tere da ngay xam ne lu bon la ba noppi itam yëg ne naqari na la bëgg nga mu jóge fi waaye même boo xamee ne lu bon la waaye nga jàpp ne daal lu wala bal ndax looloo xew looloo fi gën a bari looloo siiw loolu kon bu boobaa beew boo jàppee na lu bon la it waaye yow rafetlu nga ko yow léegi yow bëna la tukk bëna la tukk te borom bi nee na laa yastawi alxabiisu wa tayib walaw ajabaka kasratul xabiis parce que ñu baree baree bari li ñuy natte mooy lu bari rek ñu ne foofu loolu baax looloo xew te nee na li baax ak lu bon duñ mën a yem doonte li bon dem na ba yéemu lool bari lool ba nga xam ne moom rek a xew nee na teewul rek la baaxoon loola mooy li baax ba tey bokk na ci màndargay pas-pas bu wér itam alxubbu fillah wal bughdu fillah pas-pas bu wér ku ko am danga nga egg ci sa xol kenn du ci mën a dugg lu dul koo xam ne dafa nekk ci lu neex yàlla leneen lu mu mën a def du la saf bu la doon jox alal ak bu la doon fonk ak cër bu mu la mën a jox loolu du la saf du tax nga mën koo bëgg waaye liy tax nag mbiram mën laa saf nga mën koo bëgg mooy gis ko ci lu neex yàlla loolu mandarga la ci borom pas-pas bu wér bu xasee gis itam ku yor pas-pas bu wér boobu nekk ci lu neex yàlla doonte lu ko daray àdduna yi daf koy bëgg ci xolam rek doonte sax gisu ko léeg koo xam da koy dégg rek waaye nanga nga ko déggee comme ni muy déggee saxaaba yi waaye dañu leen di bëgg ngir lu baax lañu def ci lislaam te fekk na ñun itam lislaam boobu moo ne suñ biir xol bu ñu déggee ku ci taxaw taxawaay bu mel noonu ak nam ca meloon da nga koy bëgg ci sa biir xol loolu bu mel noonu boo ko yëgee sa xol nga sant yàlla xam ne kon yow yaa ngi ci mandargay pas-pas bu wér waaye nag bu fekkente ne yow ki nga mën a bëgg rek mooy ku la amal njariñ lu teew ak kooka nu mu mën a mel rek yow dootoo xool ay sikkam waaye njariñ lim la amal rek nga koy daal di bëgge koo kon a nga tiit ne kon pas-pas bi dese naa wër moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam ne laa yuminu ahadukum atta yuhibba li aqihi maa yuhibbu li nafsi moom it xoolal ni mu ko teg iman laa yuminu la wax laa yumin du mën a am ngëm gu mat kenn ci yéen li fee bëggalul mbokkam li mu bëggal boppam waaw kenn ku ne xam nga ne li nga bëggal sa bopp moom mooy lu baax kon saa yoo demee ba di yéene sa mbokkum jullit lu rafetul wala nga di ko iñaane la mu am kon ndax la mu am bëgg nga ko am boo ko amoon da nga cay kontaan lool kon su ko amee mu lay naqari war ngaa tuumal sa bopp ne kon kat man mii feebar moo ne sama xol parce que feebar la fi qulubihim maradun marad feebar la amma ngëm gi bu wéree dëgg dëgg dëgg moom da ngay kontaan ci sa mbokkum jullit lu mu am day mel na yow yaa ko am bokk na ca màndarga yi tam at tawakkul ala allah maanaam wakiilu ci yàlla ku yor pas-pas bu wér bokk na ca lañ koy xame da ngay wéer say mbir ci yàlla wéer say mbir ci yàlla nag li koy waral mooy yaqiin mooy wóolu yàlla waaw yaqiin da ngay am yaqiin ci yàlla xam nga imaan dana am mais beneen daraja bi gën a toppaat nag mooy yaqin wa bil axirati hum yuqinuun gis nga kooku sax waxul yuminuun mais yuqinuun la wax i yaqin da am yaqin ki am kóolute ci borom bi tabaraka wa taala kattan gi borom bi tabaraka wa taala am ak coobareem mu am ci yaqin kooku mbiram yépp ci yàlla la koy wéer moo tax borom bi ne wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasb ku wakiilu ci yàlla yàlla doy la ko sëkk wakirlu googu nag dana dàqonteeg lu xew lu ne wala aajo boo am bu nekk ngay dellu ci ay mbindeef dem di jibarlu kii jibarlu kooku gëmul sax yàlla ba di ko wóolu waaw gëmul yàlla kooku jàpp ne na ne mbiram moomu mu soxla yaakaaru ci borom bi tabaraka wa mais moroomu mbindeefam lay yaakaar ne mën na ko koo may kooku euh, sore na lool ak tawakkul wakkirluwul ci yàlla mais kooku lay jéem a parce que say moyens yi bu mu jeexee ba ngay wut beneen ndimbal loolu mooy tawakkul moyens yi nga am yooyu moom yàlla daf la ko defloo ya nga xam ne nag génn na sa sa force nag mënatoo ko kooku ci yàlla rek ngay delloo lépp koo ko delloo kooku nga wéeru koo ko delloo ci kooku nga wéeru te wéeru boobu ak jaamu la yaa ngi koy jaamu ndax tawakkul ak jaamu la moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci addis boo xam ne euh, tamimu daari mi ngi ko déggee ci omar ibnul xataab mu ne law annakum tawakkaltum ala allahi xaqa tawakkulihi la razaqakum kama yarsuqu tayr taxdu ximaatan wa taruuhu bitaana rawaahu ahmad yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne bu ngeen wàkkirlu woon ci yàlla man a bàyyee yàlla seeni mbir bàyyee gu wóor nee na kon dana leen wërsëgal comme ni muy wërsëgale picc mu ne picc day xëy waaye gis nga baatu xëy bi mu tudd moo lay xamal ne picc dana sabablu wakkiirlu itam nag duñ tëj sam néegi rek daal di toog lal sab sajaade toog ne damaa wakkiirlu ci yàlla li ma soxla daal dana ma fekk fii déedéet waaye def na tax du picc dafa xëy waaye nee na bi muy xëj xëy ximaasan nee na xotti biir yu deful dara la xëyee waaye mu ne wa tarooxa buy gont ngoon di ñëw bitaanan biir bu fees dell lay dellu sëy te pourtant bi muy xëy di dem xamul fu jëm amul tool amul atelier amul bureau amul magasin waaye day dem rek làmbatu ji ci wërsëgu yàlla gi comme yàlla moo ne fam suuf fii manaakibihaa wa kuluu min rizqi dox leen ci kaw suuf lekk ci wërsëg bi ma leen fi defal mu dem làmbatu ji rek bu làmbatoo rek dana daje waaw dama ji rek kon picc ba muy xëy diwoowuti saafara diwoowul dara tekkul dara daa xëy dem rek te soxlaam fajul waaye yow mi nga xam ne bala ngaa xëy butéel bu nekk da ko ñor bi ubbi ko ndomba bu ne nga jël takk fa ngay liggéeyee ji dem noona la mel lu ne ña ngi ko fa takk lu ne ña ngi ko fa suy kooku yow jàppoo yàlla mooy wërsëgal te ni ngay sonne ci wut yooyu doo ko sonne ci am compétence bi tax li ngay liggéey man a dox waaw nit ñi ni ñuy sonne ci wut yooyu nga xam ne dafa génn seen force duñ ko sonne ci jéemoon a def liñ man ci seeni effort waaw effort yi nga man maanaam bu def oto ngay dawal da ngaa war a def effort ci oto bi baax am entretien bu baax pièce bu yàqu li nga naroon a weexale ji benn waaye mu lay jox loo takk ci direction bi demal jënd ji ko ab pièce def ko ci biir oto bi oto bi wala bal baax wér su ko defee nag ngay ñaan nag ñaan yi yonente bi alayhi salatu wasalaam jàngale booy dem nga ñaan ko subhaanallazi sàqara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin ñaan yi rot suñu yëpp nag dem sabab lu ci nag waaye yor oto ba lu ca paan doo ko defam ka lay wax ne lii ku ko takk seen oto du accidenté loola ngay jël rek di takk di xaaw di ca weexale xaalis boo xam ne mënoon nga ko jënde ay pièces def ci kon kooku li muy tekki mooy te muy tuddoo ak njullit li muy tekki boo ko gisee kon xamal ne kii pas-pas bu wér nekkul ci moom kooku loolu loo gis ci moom bu mu la bett bu la sàccee bu mu la bett bu la woree bu mu la bett bu fenee bu mu la bett waaw mandarga yooyu koo ko gis ci moom bu noppi nga naan defoon naa diw du ma def lii moo tax bala ngay jëflante ak nit na nga natt comportement diineem ni mu koy dunde wala pas-pasam boo ci gisee yenn mandarga yuy tegtale ne yii ku yor pas-pas bu ko yor kooku boo duggee moom ci ay accords adduna yu ngeen di sëqit ay wor dana dugg ca biir waaw ndax ki nga xam ne yàlla la njëkk a wor wor keneen taxul muy wax te borom bi dana woon yaa ayyuha allazina amanu laa taxoonu llaaha bu leen war yàlla war rasul akub yonanta su ngeen ko defee wa taxoonu amaanaatikum kon kóllëre gu ngeen jëlati da ngeen ko wax nee na ku xas war yàlla akub yonanta yonente bi sallallahu alayhi wasallam war na ko ndax toppatu ko toppatul sunnaam te fu mu ma nga ba nga laa nga jëroon accord ne yàlla rek ngay jaamu doo jaamu keneen boo jaamoo keneen yaa ngi war yàlla te yaa ne woon laa ilaha illallah boo ne muhammadun rasulullah da jëloon nga engagement ci ne yonent bi dong ngay roy boo royee keneen war nga yonent bi accord bi nga defoon ak yonent bi yow annulé nga ko kooku nag kon keneen koo defal accord tam accord boobu duutu fa la li ko waral mooy pas-pas ba moo wératul bokk na ci mandargay pas-pas bu wér itam boroom du ragal lu dul yàlla borom bi wax ne ko innama dalikum sheytaan yuxawifu awliyaahu fala taxaafuuhum wa xaafuuni déggal in kuntum muminin <laughs> sart lay andi de condition in kuntum muminin bu fekkente ne gëm ngeen yàlla ñi leen di tiitloo te xam ngeen ne fi mu ne ndax aaya bi mu ngi wàccoon ci xareb bi mu jeexee te xam ngeen jullit ñi Euh, ñu bari ci ñoom shahid fa bi ñu dellu see nag naafiq yi nekk ci biir jullit ñi dañ doon tiital jullit ñi naan inna naasa qad jama'u lakum naan yéefar yi ñibbi wuñu dañoo wuti renfort ñi ngi dellu si waat ñi ngi del pour bëgg nit ñi tiit daw fu ne nit dugg fa naan jullit ñi ku des ci dëkk bi tey boo watuwul yéefar yi makka yi danañ dellu siwat waat ci dëkk bi dañoo ñu ngi fii rek soriwuñ inna naasa qad jama'u lakum faxshawhum ragal leen leen waaye mu ne fasaadahum imaana wa nee na tiital yooyu ñu leen doon tiital daf lay a dolli ngëm suñu borom ne ñoo ñëw leen di tiital seytaane la innama dalikum alcheytan yu xawifu awliyaa seytaane day ragalloo képp ku ànd ak moom borom bi ne falaa taxaafuuhum bu leen leen ragal waxaafuuni ragal leen ma man yàlla in kuntum muminin bu fekkee gëm xam nga ragal yu mel noonu fi mu ne day am fi ne boo doon tukki tey da la sa sikkim bi soo ko watul soo wàccee France wala nga wàcc feneen yow kaso bi nga jëm gowante naa moo lañ la yóbbu di la tiitloo di la tiital yi ba bootul sax yow sa comportement dootoo ñemee julli dootoo ñemee yori sikkim dootoo yooyu yëpp nga bàyyi ko li muy tekki mooy kon yaa ngi ragal leneen lu dul yàlla yaa ngi ragal leneen lu dul yàlla te ki lay ragal loo ci làmmiñu seytaane lay wax suñ jamono ji bari na lool buñ la gisee nga yor benn comportement julli rek boo jëmee feneen ay ah, yow de boo demee fii nga jëm bootul da nga fa am problème wala li ngay wuti moom du sotti borom bi nag ne su ngeen leen ragalee ca loolee ñu leen di wax kon li muy tekki mooy ngëm nekku fa falaa taqaafu daf ko tere falaa taqaafu waxaafoo ni ragal leen ma man maa leen bind ñoom ñoo ñee ngay ragal cër bu ñu yëkkati man yàlla man la neex man yàlla man la neex kon man yàlla man nga war a ragal liñ naan lu yëngu lu ne la ko yëngale ko ëpp doole lay yëngu kay ragalal ka koy yëngal ah ki nga naan daa am doole daa am nangam daa ami mooy ku ko jox mooy yooyu ak doole jooju wa huwa alqaahiru fawqa ibaadi ki nga xam ne nee na moo dominé jaamam ñépp ci suufam la ñu nekk kooku booy ragal moom ragal te boo ko ragalee ah su ko defee mu daan lay aar boobu borom bi tabaraka wa taala bokk na ca màndargay pas-pas bu wér itam boroom doo ko gis muy lor jullit ñi ci seeni deret maanaam di rey nit la di di ko jam di agressé nit dolor nit it ci wàllu alalam du jël alali nit dolor nit it ci wàllu deram parce que nit ñett yooyu la am bakkanam ak alalam ak honneur ak ab deram honneur am bañ xas di ko yàq yàq ko weeje ko ba nit ñi tëgatuñ ko fenn day am yooyu dafa araam ci ab jullit mu koy def ci mbokkum jullitam suñu borom tabaraka wa taala bi muy lim melo yi jaamam ñu baax ñi daf ne wala yaqtuluuna nafsa allati xarama allahu illa bil xaq ñoom duñu rey bakkan bakkan bu yàlla araamal ko ko rey duñu ko rey lu dul ci dëgg xanaa nag mu dem ba dëgg tegu ci kawam ñu atte ko war koo rey ah foofu il faut kenn koy rey ka koy rey nag boobaa réyetu ko ci turam waaye ci dëgg la ko rey bu boobaa waaye duñu agressé kenn di la rey ak façon bu ñu lay mën a reye mu ne wala yaznuun ñooñu duñu njaaloo wa man yafal dalika yalqa azaba mu ne ko def loolu de dana dajeeg mbugal mu metti waxam ne yaa ayuha alladina amanu gis yaa ayuha alladina amanu lay jiital toujours laa taakulu amwaalakum baynakum bil baatil yéen ñi gëm yàlla bu leen lekkante seeni alal ci seen diggante ci neen maanaam nax nit ba lekk alalam te loolu façon yi ñu koy defee léegi bari na lool waaw bari na lool wala koo xam ne dina sut xel ci ay tëral yi dama ki dugal yi dama ki génnam dana lekk sa alal ba pare ba nga xam ne lekk na ko waaye yow doo ko mënal dara doo ko mën a justifier fenn waaw ci ay pexe la ko lekk loolu la borom bi tabaraka ko taala ne yéen ñi gëm yàlla bu leen lekkante seeni alal ci ak te bokk na ca nga fexe ba jël alal nit ki te li nga ko defal yow amul benn njariñ comme lu mel ne da jibar yiy def jibar bi yow sa alal la lekk te moom lim la jox amul benn njariñ lor sax lay am laxas ak weñ ci béjjën wala ci bant wala ci dara jox la ba noppi yow yóbbu sa xaalis te yow béjjën boobu foo ko dalal du faj benn soxla 1000 francs ya ko jox nag moom bitig bu mu dugg mën cee faj soxla kon lekk na sa alal bil baatil bil baatil ak leneen lu mu mën a doon nag loo xam ne dangay wax ne nit da nga ko koy defal da nga ko koy lijjantil nangam kaay ma defal la nangam te fekk na la nga koy wax doo ko def comme ni nit ñi def léegi ñuy wax ne mën nañoo li wuti visa ak mën nañoo yóbbu nit bitim réew ak yooyu yëpp di ci lekk alali ay nit kooku akul amwaali naas bil baatil la ndax mu leer na yow la nga koy diggeew tënewoo ko ci dëgg la kooku itam nag moo gàttoon xel waaye yow itam waroo sabab lu ci bu gàtteem xel da koo war a yee sa mbokkum julit bu fekkee ne dafa yéewuwul ci dara da nga war a yee waaye waroo profité ci ñàkk a yeewoom gi yow di ci wut alal yow loolu koo gis mu koy def xamal ne kon pas-pas bu wér nekkul ci moom ñu jële ci abdullah ibni amr an na sal allahu alayhi wa sallam qaal la zawalu dunya ahwanu ala allahi min qatli rajulin muslim rawahu tirmisi yonente bi alayhi salatu wasalaam ne adduna bu tukki tas nee na moo gën a woyof ci yàlla ñu rey benn bakkanu jullit kenn nit ku ñu rey ni mu diise fa suñu borom tabaraka wa taala nee na adduna bi tukki woon lépp sax nee moo ko gën a woy adduna dañ par looloo gën a woyof moo tax kon bakkanu doomu aadama euh, jullit daf koy daf koy wattandi ñu jële ci abi xoreyra mu jële ci yonente bi alayhi salaatu mu ne araam na ci ab jullit Euh, dereti mbokkum jullitam ak alalam ak ab deram maanaam deretam bu mu ko tuur alalam bu mu ko jël ci lu dul yoon ab deram itam bu mu ca teg kàddu yoo xam ne yu ñaaw la di ko jëw wala di ko xas wala di ko rambaaje di yàq ab deram bokk na ci màndargay pas-pas bu wér al adlu fi shahada maanaam maandu ci lépp loo xam di ca témoin di ko seede nga maandu ci teg ko ci dëgg rek doo ca xool ku la jege ku la jege ba mu ëpp te nga xam ne tooñ gi ci moom la féete du tee nga wax ko donte sax ci sa bopp ngay tàmbalee sax même su fekkente ne yaa def lu dul dëgg ñu dem bay laaj nu mu demee bul jéem a làq sa bopp ndax ki gëm yàlla day xam ne moom mën naa xëy na làq boppam nit ñi waaye mënta làq boppam yàlla mënta làq boppam yàlla loolooy tax bu boobaa nag far jéem duutu ko sax jéem a làq nit ñi day wax rek la am moo tax borom bi ne yaa ayyuhal lazina amanu gis nga moom it ba tey yaa ayyuhal lazina amanu la jiital koonoo qawwaamina bil qist shuhadaa lillah walaw ala anfusikum awil walidayni wal aqrabin mu ne yéen ñi gëm yàlla na nekk nit ñoo xam ne da ngeen di teg ci maandu doonte dëgg ga dafa dal ci sa kaw walaw ala anfusikum awil walidayni wala mu dal ci say wayjur wal aqrabin wala mu dal ci sa mbokk yi la jege in yakun ganiyan aw faqira nee na wala mu dal ci ku am alal alal ja bu mu tax nga ragal ko ba tax doo wax dëgg ci moom aw faqiran wala mu dal ci ku ñàkk mu am dëgg moom ñàkkam nga bu mu tax nga bëgg koo xañ dëgg ci ne rek moom ku amul ku ay moyen la amul ay pexe la amul alal kon nañ ko xañ dëgg gi jox ko ki am alal mu ne fallaahu awlaa bihima yàlla moo gën a yey ñaar ñooñu ñëpp ki am alal alal ji bu mu tax nga jox ko dëgg gu moom ki ñàkk alal itam ñàkk alal ji bu mu tax nga xañ ko dëgg gu mu moom mu ne fala tattabihu l hawa an taadilu topp bànneex bu mu leen tee maandu wa in talwoo aw turidu fa inna allaha kaana ma taamaluuna xabira nee na bu ngeen wanee gannaaw nag xam liy dëgg ba noppi du mooyu ko wax leneen na ngeen xam ne kat la ngeen di jëf amul dara loo xam ne lu ca ump suñu boroom la Eh, tabaraka wa taala bokk na ca mandarga yi itam yi nga xam ne pas-pas bu wér su amee ci nit ki dana ko def ci nit ki mooy day mën a muñ ay nattu pas-pas wér te pas-pas bu dëggoo énergie la lay jox boo xam ne day mën dékku na nattu bi da koy mën a dékku parce que ko ko feebal doo ko mën a dékku waaye soo dëgëree nag te dëgëraay boo mën a dëgëraayu ngëm yàlla la mooy tax nga mën a Euh, dékku nattu yi nga xam ne daf lay dal moo tax borom bi ne wala nablu wannakum bi shay'in min al xawf gis nga yàlla ngëm yàlla gi daf koy nattu ba xam fu sa ngëm yàlla toll moom la ahasiba naasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ndax nit ñi dañoo jàpp ne dañ naan gëm nañu yàlla rek ma bàyyi leen noonu duma leen nattu teg leen ay coono ba xam kan moo ci dëggu ci ngëm yàlla xam ngëm moom woote woo ko yomb mais nag fi ak ñi dëgguwul mooy su nattu yi ñëwee moo tax gis nga naafeq amul woon makka amul woon makka ndax euh, naafeq fi muy faral di amee mooy foo xam ne dem na ba l'islam bi ay intérêt am ci makka moom métti rek a fa nekkoon makka moom ba kuy dugg ci l'islam rek booba da nga gëm mais benn intérêt boo ciy damu si nekku si boo si duggee sax problème ngay am intérêt boo amoon sax boo duggee ñàkk ko far kon kooku doo dugg si waaye bi ñëwee Madina nag ba nga xam ne islam bi commencé na am état alal ji commencé ñëw ñuy commencé di nommer ay nit loolu nag ci la nafiq yi di duggi ci la waaye nafiq yi li leen daan feeñal nag mooy bu jihaad amee julli mën na leen a bañ a feeñal doon doonte danañ tàyyel lool ci julli waaye danañu wattu ba julli ji rek koor mën na leen a bañ a feeñal ndax koor moom nit ki mën naa mën naa déclarer ko war te fekk sa wóorut waaw moo tax mën na li na bañ a feeñal mën nañoo déclarer ne dañoo woor waaye nag jihaad nag xeex bi nag bu ma saa am nag yonente bi alayhi salatu wasalaam déclaré na dañuy jihaad foofu la nafiq yi feeñ gis nga la ndax attanuñu natt boobu nga xam ne da ngay dem ñàkk sa bakkan ñàkk sa alal booy dem ndax booba yow yaay financé sa bopp soo amee fas yaa koy war soo amee gëléem yaa koy war yaay wutal sa bopp ab dund soo ko amul nañ ñu doog laa jox kon sa alal nga yóbbu ndax wa jaahadoo bi amwaalihim wa anfusihim la wax da ngay jihaad ci sa alal ak sa bakkan moo tax kon nattu ci la ñuy xamee boroom ngëm yàlla goo xam ne gu wér la waaye gu dëgër la itam nag ndax ngëm yàlla mën naa sax wér waaye dafa dëgërul mën ngaa yor pas boo xam ne sax yow woog yàlla dara waaye nag jaamu yàlla yi koy suuxat nag parce que itam garab la gu ñu jëmbat garab gi mën nga koo jëmbat mu baax lool sax jebbi na sax na waaye boobu boo ci deful ndox da koy day continuer nekk ngarab su tuuti ngarab su tuuti waaye day laaj nga di ko suuxat di ca dolli ndox di ko suuxat di ko sori lépp lu ko war a yàq su ko defee nag muy màgg garab gu yaatu googu nag mooy tax mu mën a am ker goo xam ne boo fa toogee lu naaj wi tar-tar moom mu mën koo nga garab bi ni muy supporter naaj bi boo génnee ker gi rek gis naaj bi ni mu tàngee bi nga nekkee ci biir ker gi garab gi moo supporter naaj bi moo ko téye noonu la ngëm yàlla gu foor gi itam nag di supporter coono yi ci bitti ak nattu yi noonu garab gi tëyee naaju jant bi ba soo ci toogee day mel na jant bi néewul sax wala jant bi daal dafa tàng ker gu sedd guy te pourtant jant baa ngi tàng lool mais ker gee xob garab yi ñoo ko supporter ko téye sa ngëm yàlla itam nag noonu lay supporter coono yi ak fitna yi nga xam ne dana la dal moo tax borom bi de danaa leen nattu ci ak ragal nattu leen ci xiif nattu leen ci alal ju wàññiku ak ay bakkan yu wàññi ko waaye wa bashiri sabirin na nga bégal muñkat ya alladina ida asaabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun su boroom ne bégalal ya nga xam ne bu musiba xewee duñu daal di saalit waaye dañ naan rek nun yàllaanu moom te ci yàlla la ñuy dellu maanaam loola dal boo gëmee ne yàllaa la moom rek dangay xam ne kon sañ na laa teg lii nga muñ ko mu ne ñooñu day suñu borom dana wàcce ci ñoom ay xéewal wàcce ci ñoom yërmande te ñooñu nee na ñooy ña gindi ko bokk na ci jeexiti pas-pas bu wér ki pas-pasam wér bokk na ci li nga koy xamee ci wàllu fàggu wiinu alal dana wattandiku alal ju xaram riba surtout ka riba borom bi def ne yaa ayyuha allazina amanu toujours rek yaa ayyuha allazina amanu yaa ayyuha allazina amanu laa taakulu riba laa taakulu riba adaafan mudaafa wattaqu llaha laallakum tuflixuun mu ne yéen ñi gëm yàlla bu leen lekk riba kon kay boo lekkee riba kay duggatoo ci yéen ñi gëm yàlla tere war nañ la nga bañ buñ la tere nga bañ kay bokkatu mu ne bu leen lekk riba joo xam dañ koy multiplier maanaam nga def sa compte ci banque bi def ko compte bloqué ñoom ñu la koy yokkalal rek muy dem alal dañuy liggéey ñu lay yokkalal rek nga ne dama ko def compte bloqué fii nangami at laa koy ubbi mu nekk abdaafan mudaafa parce que alal jaww ja nga fa bàyyi ña nga cay lebal ay nit di ko intérêt la leen nit ñay delloowaat ca lañ lay tegal sa wàll yow itam ca lañ lay tegal sa wàll kon lañ lay tegal lépp riba la moo tax intérêt bancaire yi ay riba ndax ñoom ni ñu ko amee riba la ñu ko amee riba la moo tax suñ la ca tegalee riba lay doon borom bi de bu leen ko lekk ndax kat riba moom borom bi tabaraka wa taala daf ko garaawal lool ne yaa ayuha allazina amanu taqullah ci beneen aaya wadaru ma baqiya min riba bi aaya bi wàcc mu ne comme fekkoon nga am jëflante boo xam ne am nga nit ñoo lebaloon ñu war laa fay war ko intérêt ba ko annulé ko in kuntum mu'minin dégg nga loolu ci teg de néeg gëm ngeen yàlla lebaloon nga nit cinq mille war laa fay léegi nee rek léegi cinq mille la la amal moom nga ma amee moo tax mu ne wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum su ngeen tuubee seen capitalu alal nag yéene ko moom laa tazlimuuna wala tuzlamuun ki nga lebaloon bu mu ne la ah yow kat da nga maa lebaloon cinq mille war maa fayu six mille léegi araamal nañ loolu kon ñàkk nga lépp déedéet bu mu la wax loolu na la jox sa cinq mille yow bu ko ne araam na kat waaye ba muy araam boobu ba ma lay lebal booba araamagul woon kon fay ma sama six ba pare mu doog a araam déedéet moo tax mu ne laa tazlimuuna bul tooñ waaye wala tuzlamuuna buñ la tooñ yow itam waaw laa tazlimuuna wala tuzlamuuna mu ne wa in kaana doo usratin su fekkee ki nga lebal sax nee na dafa ñàkk fa naziratun ila maysura na nga ko muñal ba mu am nga bu jëkkoon dañ laa def bu ñu la masaa lebal ci jaahiliya te léegi sax ba léegi banque yi ñu ngi koy def parce que banque bu la lebalee date bi mu la war a jox ne moom nga war a fay boo fayul daf koy yokkaat daf koy yokkaat daf koy gën di multiplier rek muy gën di dem mën ngaa dem yor ay milliards yo millions yoo xam ne day nangu sa kër nangu sa lépp waaw te fekk ne li la lebaloon sax bëriwul 10 millions yi rek mën nga cee dem ba ko 100 millions dañ continuer di ko yokk jaahiliya yi noonu lañ doon def la masaa lebal 5000 francs ne weneen weer ñëw mu la huit mille francs la noonu la koy continuer rek am na fu mu daan yegg da jël nga nekk ak ndax danaan loolu yoral nga ko loo xam ne mat na njëgu ab jaam kon léegi ab jaam nga yow mënoo koo fay te te li ñuy jëndee jaam te booba ñu ngi jënd jaam yi yoral nga ko lu ñuy jëndee ab jaam kon léegi da lay récupérer nga nekk ab jaam moo tax borom bi ne wa in kaana zo usratin su fekkee ki nga lebal dafa ñàkk fa nasiratun ila maysura na nga ko muñal ba mu am waaye mu ne wa an tasaddaqoo xayrul lakum nee na même boo ko sax moo gën ci yow kon wattandiku jëflante riba ku ngëm yàlla dëgër ci yow dëgg dëgg dëgg dëgg da nga koo moytandiku riba boobu nag jamono bii jamono ñax naqari naa mucc lool ndax xam ngeen ne système économique bu adduna bi yépp ci riba lañ ko teg ñu baree baree bari dañuy jéem a wut ay fatwa bu ñuy laaj nit mel na dal kooku moom moom moom fatwa bi mel na moo leen ci war a dimbali surtout ñu bëgg ay pare ci banque yi bëgg a tabax ay kër wala bëgg oto wala bëgg dara dañuy bëgg rek ku leen ko daganal ndax jàpp daal loolu ku ko deful daal sa mbir du man a baax mais ku la wax ne loolu da nga koo mënta ñàkk parce que daroora boobu ñor naan daroora bu ñu nee yenn borom xam-xam naan bu dee daroora daroora yow yaa koy kenn yaa sa bopp est-ce que lii daroora la boo ko ñàkkul boo ko amul lu mu lay wàññi ah il faut mënuma ñàkk kër boo amul kër nag nañu ay juddu juddu ba dee am solo sax mooy am nañ kër mooy fi nga dëkk rek fi nga moom sa kër yaa xam da nga ko luyee wala dañ la koo abal wala da nga koy waaye yow am nga kër gannaaw am na fooy di fa moom am na ah kooku moom li am solo mooy njëriñ jariñu gi rek bu fekkoon ne maako moom rek la kon yu baree baree bari doo ko jariñu parce que yow mi yow saa booy ñëw oto ngay dugg mel na am nga oto booy tukki avion ngay dugg mel na am nga avion gannaaw am nga paas bi waaye nag su fekkee da ne nag daroora bi mooy dama koo war a am donte damay dugg ci lu xaram ah kooku nag kon bu boobaa yaa ngi bëgg a tabbi ci ak xër nag xër goo xam ne nag mooy bëgg a weesu la fiñ la yamala woon gi génne woon sunu maam aadama loolu moo topp doomu aadama yi ba fii ba léegi lem ne woon fakula minha ragadan haysu situma ajjanaa ngoog lekk leen gratuitement fu leen ci soob amul liggéey lekk leen ragadan mooy loo xam ne danga koy jot te doo liggéey doo fay dara waaw haysu waaye nag wala taqraba hadihi sajara garab gii nag bu leen ko jege seytaane ñëw jaxase leen bañ lekk adduna yi loolu la du yàlla fi mu ne yu dagan yi moo ëpp yu araam yi adduna yàlla def ne moomu noonu yu dagan yaa ngoog lekk leen waaye nag bàyyi leen fi yu araam yii mooy garab googee ba léegi rek waaye da ngay gis nag ku fa bàyyi yu dagan yooyu yépp nag dem ci yu xaram yi xeeti njaay ya xeeti liggéey yi bari na lool nga gis koo fa bàyyi nekk ci PMI te carte ga di fa kër kër la mu fay sonn ak temps ba mu fay def bu ko defoon ci leneen dana mën a am lu lew kon bokk na ci jeexiiti pas-pas bu wér wattandiku alal ju dëgënul muy riba te nag riba ci borom bi wax fa in lam tafalu nee na su ngeen ko bàyyiwul fa'zanu bi xarbin min allahi wa rasulih déclaré leen guerre yàlla ko yonentam kon yéen yéen a déclaré guerre yàlla ko yonent fa'zanu yéen yéen a déclaré bi xarbin ab guerre min allahi wa rasulih kon riba ak nu ñu la ko jéem a layala la rek bàyyi ndax dërëm boo ca am loom la nuru nuru lu bari bu duggee ci sunu lew li nga amoon daf koy yàq borom bi moo ne yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat nee na day rocci barkeb riba waaw riba ñu lebal la ay millions tey da ngay mujj rek naan millions yi fu mu jaar waaw millions xaw ma amul barke day dem ci loo xam ne yow doo xam fu mu jaar waaye ne bu fekkee ne nag sarax la alal ji da nga ciy génne sarxe ci nee na loolu nga sarxe suñu borom tabaraka wa taala daf lay yokkalal sa alal jooju barkeel mën naa tuuti lool waaye da nga ciy faj soxla yu baree baree baree bare waaw soxla yu baree baree bare loo def rek dafay barkeel looy lijjanti lu nekk mu yomb lu nit ñi am ci lu seer wala da ca am ci ay jafe-jafe parce que mbir bu la ko yàlla bëggee yombala léeg-léeg mbir nga di ko lijjanteeg daj ci loo xam ne ay tardement yi avion wala tardement yi oto wala seet naa diw fekkuma ko loolu tardeel la tardé yoo xam ne dana la coûté waat ci ab somme boo xam ne kenn du xam nu muy toll su fekkee yàlla da lay defal barke nag looy def lu ne rek day day lijjanti ko fa saasa du la coûté dara su ko defee nag loola mooy barke ba waa ji mën naa cinq mille francs bi lijjanti ci loo xam ne yow yow da nga ñàkk cinquante mille francs te du lijjanti ko yow ngir mbir yuy faussé yàlla moo yor mbir yi ka nga doon seet fekkoo ko fa fukki fan doog koo gis nga doon seet dara ñu la loolu jaay nañ ko keneen wala loola réer na ngay wëriwaat kee moom lam si kam seet mu fekk ko fa saasa lam doon wut fekk ko fa lijjanti soxlaam dem yoon xoola kooku temps bu gàtt bi mu am yow li ngay paasaat di ñëw ak di téléphoné ak di seetaat ak da dem ba mu coûté la loo xam ne noonu la yàlla di roccee barke nag ci mbir waaw dala ciy keréel ay mbir yoo xam ne sóoraale woo ko woon ci biir dépense yoo sóoraale wul woon moom dala ci yàlla dugalal ki yàlla barkeelal da koy dindi nag dépense yi détails yoo xam ne mën na cee ñàkk yépp yàlla da koy kii li ciy dem lépp day dem directement ci li ko tax a jóg barke nag borom bi nee na da koy rocc ci riba alal joo xam ne riba nga ci kon dem ci banque bi ñu lebal la nga naan naa ci mën a réussir déedéet kooku moom koo gis koo xam ne moom ci banque rek la tàmbalee alalam bëgg alal ju barkeel ju sax ju wéy ju mën a am déedéet du ko mën a am du mën bu demee ba bari alal lay doon joo xam ne du ko xiirtal ci jaamu yàlla parce que barkeelu julli ci tam mooy alal joo xam ne man nga koo jariñoo ci sa diine bu lay ci sa diine mais alal joo xam ne da nga koy foyee da dal dalay mooyloo yàlla jooju alal musiba la barkeelu ñu jële ci alqama mu jële ci abdullah yonente bi alayhi salatu wasalaam ne la ana rasul mu ne la ana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aakila riba wa muukilahu qaala qultu wa kaatibahu wa shaahidayhi qaala innama bima samina alxama nee na jël nañ ci abdullah nee mu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam day rëbb na kii lekk riba ak ki ko koy lekkloo kii lekk riba ak ki ko koy lekkloo yow bi ko may possibilité bu mën ko lekk masalan ki lay lebal na la mille francs nga may fay bu ko jël bu ko jël loo ñàkk ñàkk ñàkk rek ba ko bu ko nangoo fay 6000 francs yooyu 5000 francs la la lebal na ko fay 5000 francs rek parce que bor du liggéey ci lislaam bor ak jaabu yàlla la yow mi dem ba am ba am loo mën a denc kii moom amul dara da ngaa war a yëkkati ci wërsëg woowu abal ko ndax lii bokk ko abalul woon da nga koo denc yow lékkoo ko kon denc ko ci moom denc ko ci moom comme da ko naroon a denc rek denc ko ci moom mu faj soxlaam moom waxtu wa nga koy soxla mu delloo si waatal la ko nga am ci tuyaaba waaye moom mu ñàkk ba pare ngay yokkaat ñàkkam gi moom mi ñàkk ba amul cinq mille francs nga ko nga may fay kooku kon ci biir ñàkkam gi yow ci nga bëgg a dund loolu moo tax l'islam Euh, tere ko bokk na ci màndarga yi yi nga xam ne pas-pas bu wér dana ko def ci nit bari tudd looy tudd yàlla tudd yàlla nag bu ñu ko waxee du ni ko nit ñi tuddee rek jàpp ne mooy nga naan laa ilaha illallah wala nga naan yooyu déedéet tudd yàlla mooy lépp looy def ci ak jaamu yàlla gooy def ci sa làmmiñ rek tabbi na ci zikrullah même jaamu yàlla ngiy def ci say cër sax ci zikrullah lañ tabbi waaw moo tax borom bi tabaraka wa taala di wax ne alladina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qu'uudan wa ala junubihim wa yatafakkaruuna fi xalqi samawati wal ard nee na jaamam yi dëgg dëgg dëgg fu ñu toll ñu ngi def zikrullah même julli mu tuddee ko zikrullah ne aqimi salata li zikri suratu taha aqimi salata taxawalal julli ngir lan li zikri ngir fàttaliku kon zikrullah dugal na jàng alquran jàng alquran mooy zikru bi gën a kawe ci zikru yi nag ndax alxuraan soo ko dee jàng mbooleem xeeti zikru yi mi ngi ci biir parce que zikru mën naa nekk du'a booy ñaan yàlla yaa ngi zikru la yaa ngi tudd yàlla bu fekkee da ngay def istixfaar di jéggalu yàlla yaa ngi def yaa ngi tudd yàlla ba tey bu fekkee da ngay julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba tey yaa ngi tudd yàlla yooyu yépp ne soo dee jàng alxuraan dangay ngay dajeeg moom ci biir alxuraan soo ko dee jàng ay ñaan a ngi ci biir alxuraan soo ko dee jàng ay jéggaloo ngi ci biir alxuraan soo ko dee jàng digal na la ne la jullil ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam te même sax da nga julli ci yonent bi salaamun ala nuuhin fil alamin da koy gis kon yaa ngi julli ci yonent yi booy jàng alxuraanul karim moo tax kon zikri bi ci gën a kawe mooy di jàng kon bokk na ci mandargam pas-pas bu wér borom bëgg alxuraan di ko jàng waaye alxuraan foo ko soree rek sa ngëm yàlla feebar alxuraan mooy suuxat ngëm yàlla moo koy suuxat wa ida innama almuminuuna alladina ida sukira allahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun suñ borom nee na ñi gëm yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ñi nga xam ne soo tuddee yàlla ñu tiit soo jàngee alxuraan nee na seen ngëm yàlla tey dolli ko gis nga naafiq bu ab aaya masaa wàcc ñoom du ñu yëg lu mu leen dolli su ko defee ñu naan ayukum zaadatuhu haadihi imaana waaw yow aaya bi wàcc léegi est ce que dolli na la dara est-ce que yow yëngal na la nga nga nga gën a nga gën a gëm suñu borom ne fa amal lazina amanoo ñim fekkoon ñu gëm mi ngi mel la taw bi rek xam nga taw bi su wàccee garab goo xam ne dafa dee kooku lu muy taw bi garab goo xam ne wow na ba pare waaye garab yi nga xam ne deewuñu ñoom su taw bi ñëwee dañ koy yëg reen yi da koy inspiré jël ko jox ko xob yi waaye garab googu gi moom du koy moo tax borom bi ne fa amal lazina amanu fasadathum imanan wa hum yastabsirun ñim fekkoon ñu gëm yàlla de aaya bi wàcc kim fekk mu gëm yàlla dana yokku ngëmam waaye wa amal lazina bi qulubihim maradun nag ñi nga xam ne seeni xol feebara ca nekk feebaru sikki sakka feebaru naafiq moo ne seen biir xol kooku fasaadathum rijisan ila rijisi aaya bi da leen di gën a dolli bakkaar bokk na ci jeexit yi nga xam ne pas-pas bu wér dana ko def itam mooy matal kóllëre matal kóllëre engagement yi ngay jël nga di ko matal xam nga lépp lu dox diggante doomu aadama ak nit morom ma rek kóllëre la mooy accord la ba ci ab sëy ab sëy accord la da ngay dégg sax ñu naan tey lañ koy fas dañuy fas sëy bi fas nga ma moom kóllëre waaw kon lu ñu fas la borom bi ne yaa ayyuha na amanu loolu la jiital bay dee de awfu bil uqud yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla dee leen matale pas-pas yooyu accord yooyu ngeen jël engagé ko sa diggante nit moo xam ab liggéey la moo xam ab ay wax la yu ngeen waxante moo xam ab sëy la moo xam lu mën a doon waaye engage ngeen te ku seen digganteeg seen borom borom bi nee na ngeen ko matal ndax soo ko matalul kat ak wor lay daal di doon te loolu mandargam ngëm gu manqué la moo tax yonente bi alei salatu wasalaam bi muy tudd mandargay naafeq te naafeq mooy kiy woote woo ngëm te ngëmam matut yooyu néexul ganee nit kii noonu la mel ndax ngëm ci biir xol la ne waaye nag am na signe yu koy wane ci biti tax tey jëflante dee ci bàyyi xel loolu ki nga xam ne moom ngëm gi matul lu mu ko nëbb nëbb nëbb nëbb dina am lu koy màndargaal ci biti yow kay yaa considéré wul loola mais toujours da gis ay signe yuy wane ne kii nax yii mu la nax gisoon nga luy tegtale ne war na laa mën a nax sama xarit laag moom nee nañ ma ku baax laa est ce mbaax googu mbaaxu diine la waa joo xam ne du man ci jàkka la waa joo xam ne ma ngay jàng al alquran waa joo xam ne pas-pasam wér na gisuñu ko muy jibarlu ku noonu bu boobaa buñ nekk ku baax la mën nañoo yaakaar ci moom ak mbaax waaye su fekkee gis nga muy ko saggane julli gis nga muy ku ñeme alal joo xam ne lewut gis nga ko muy ku ñeme ak njibar kooku kat boo nee ma nee nañ ma ku wóor la yow kon nattukaay yi ñu natte ku wóor yow xamuloo ko ndax ku wóor day wóor digganteem ak borom mu tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam de euh, bokk na ci mandargay naafiq ayatul wa isa waada axlaf wa isa ne ñetti mandarga yi gën nga xam ne da nga ko xamee am naafiq yépp mi ngi jëm ci relation digganteem ak nit ñi jëflante isa xaddasa kazab su waxee nit ñi lu mën a dig rek du ko def ca waxtu wam ko waroon su dee bor la bu mu la waroon a fay du ko fay foofu bu dee foo ko waroon a fekk doo ko fa fekk nee na ñu ko wóoloo ci dara itam mu wor wa ida tumina xaana loola kon la koy waral mooy pas-pas bu wérul moo fa nekk mooy ak naa naaféq mu nekk ci biir xolam bokk na ci màndarga yi jeexit yi nga xam ne itam pas-pas bu wér dana ko def mooy di wóorliku ay xibaar rawatina jamono ji nga xam ne ay rumeur day bari lool dañuy jekki-jekki rek wax ci nit loo xam ne teguñu ko fenn loolu boo ci dépassé rek bootul danga nga condamné ab jullit dem ba bañ ko tax te fekk ne waroo ko woon te bañ ab jullit dara jënu koo nekk jaxaso bokk na ci li ab jullit di ñaan yàlla yàlla boolu def nuy bañ ab jullit waaw borom bi tabaraka wax ne wallazina jaa'u min ba'dihim yaquluun rabbana ighfir lana wa li ixwanina alladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu yàlla yàlla boo def ci suñu biir xol yi ak mbañeel ñu ëmbal ko ab jullit bañ ab jullit musiba la te nag bu fekkente ne loo dégg gëm ko ci ñii xas yeneen jullit ak di leen tuumaal kon boobaa bootul da nga bañ ab jullit moo tax borom bi ne yaa ayyuha allazina amanu toujours rek yaa ayyuha allazina amanu in jaakum fasiqun bi naba'in nee na bu la ab kàccoor indilee ab xibaar gis nga kon ki lay andil bi boo gisee ulamaul jarh wa taadil bala ñoo mës a jël xibaaru kenn melo la lañuy xool moom du ndiinam bul ne rek diw ma ko nettali mais diw moomu mooy kan diw moomu xoolal nu mu mel ci diineem bu fekkente ne ko sàgganale diineem ci bàyyi la ñu ko digal wala muy def lañ ko tere kooku faasiq la bu ñu eggul ci ne kaafir lay faasiq la faasiq boobu nag la ne bu la andilee ab xibaar fata bayyanu na nga wóor liku am na ci yeneen xiraat yi sax ñoom dañuy jàng fata sabbatu na xiraat yuy jàng xiraatu Hamza wala ñuy jàng mooy na nga fexe xam xibaar boobu fondé naam ndéet sax naam ndéet na nga def say vérification ba xam sax naam ndéet rawatina muy xibaar bu garaaw nag boo xam ne lu ñuy condamné nit la kooku bu daal ne daal ne rek wax nañu dëgg diw ko bon la attan na ko def déedéet mu ne an tusiiboo qawman bi jahaala loolu bu ngeen ko deful man ngeen a dal ci kawu nit fekk ci réer ngeen ko teg aleykum salaam fa tusbixu ala ma faaltum naadimin nee na bu boobaa kat da ngeen mujj di réccu la ngeen def dem ba ne nit xas ko wala ba ko diw banaa ko diw génn naa ci moom diw nee nañ ma nangam ak nangam lay def ba tax nga soppi ni nga ko jàppe woon fekk na ki la ko wax ci boppam moom nga waroon a ba loolu itam ci màndarga yi gëm yàlla la bokk jeex jeexitam la mooy du gaaw gaawtu parce que jullit lu rafet rek la war di rafet yaakaar si mbokkum jullitam maanaam su ca leneen xewee loo xam ne lu rafetul la loolu exception la loolu lu néew la la war a doon moo tax mu ne walaw laa is damitumuhu zanna al muminuuna wal muminaatu bi anfusihim xayra bu ngeen déggee tuuma bu ñu teg seen mbékkum jullit da ngeen a war na ah kooku day dañoo yaakaar ne kon bu fekkee moo ko defit day kon daa jóom wala kon de daa xamut wala kon de daa fàtte wutal ko ay ngànt su demee nag ba sax ne moo ko def nag mu ne walaw laa iz sami'tumuuhu su ngeen ko déggee ne moom moo ko def ñu ne ah lii day maa yakunu lana an natakallama bi hada lii day man du ko déggee sama gémmiñ man du ma ko nettali man fi lay yem waaw parce que même su demee ba sax ne kii def na erreur nag jullit dana def erreur nag léeg-léeg mu def erreur def njaaxum gu rëy koo xam ne nag moom moo ko def waaye nag bu boobaa na fa yem na fa yem maanaam di wër di ko nettali ngir di ko siiwal rek dëgg la ñu nettali ko ku ko mën a faj wala ku ko ca mën a jële moom baax na waaye nettali goo xam ne dañ koy nettalee garam place rek di ko neexale waxtaan yëgu leen yow li diw defa wax goo xam ne ku ne wax ku ne xas ku ne commenté ñu daal di bàyyi noonu kenn mënu ca dara loolu la wax ne ab jullit du ko def borom bi ne inna alladina yuhibbuna an tashia alfahisatu fi alladina amanu lahum azabun alimun fi dunya wal axira dégg wallahu yaalamu wa antum la nee na ñi nga xam ne dañoo bëgg su ñaawteef amee ci biir jullit ñi mu siiw am na ñoo xam ne moom su dara xewee dañuy sol seenu dàll ku ne ñu dem sa kër ne la xanaa yëgoo la xew xanaa yow nekkoo ci dëkk bi diw def na nangam ak nangam ak nangam borom bi nee na ñooñu dana leen toroxal fii ci àdduna dana leen mbugal alaxira kon loolu it ngëm yàlla bokk na ci li muy def ci nit bu xibaar bu ñaaw wala jëf ju ñaaw amee jëm ci ab jullit bala koo gëm dana ko wóorliku ba pare su ko wóoree ba xam ne moo ko defee mu suturaal ko kem kàttanam waaye moom du ko siiwa bokk na ca mandarga yi nga xam ne itam ngëm yàlla gu dana ko def ci nit mooy di bañ a njot lu ñaaw yaa ayyuha llazina amanu ba tey yaa ayyuha llazina amanu ijtanibu kasiran min azann yéen ñi gëm yàlla wattandiku leen lu bari ci ay njort ay njort mooy ay defe ay dut yoo xam ne daa am looy looy looy looy looy yaakaar mu ne inna ba'da dhanni ta wala tajassasu bu leen di yëddu yëddu mooy di espion wu dem di jéem a déglu nit wala di ko jéem a enregistré jumtukaay yi ñu ko mën a defee léegi bari na mën wax ak nit fekk yaa ngi koy enregistré te du ko yëg mën ngay filmer nit du ko yëg mën ngay photo nit te du ko yëg mën ngay déglu téléphone nit yooyu yëpp la borom bi tabaraka wa taala wax ne ku gëm yàlla na ko wattandi ko wala yaxtab baadukum baadan bu baax ban bu kenn ci yéen jëw ka ca des gis nga yépp soo ko dee def danga ci yëgee ne kon yow sa ngëm yàlla ba tey am na lu def ngay jéemu mat da sax yii léeg-léeg nga tàbbi ci ci dara léeg-léeg nga jëw mais war nga tiitaat ne man mii kat comme borom bi nee na woon yéen ñi gëm yàlla ba leen jëw te man maa ngi jëw kon li muy tekki mooy sama ngëm ma tagut na góorgóorluwaat ba bàyyi jëw da ngay sase sa bopp da ngay am projet ci sa diine waaw ni ngay amee sa ay projet ci sa mbirum adduna ren ji nangam laa bëgg a réaliser sa diine itam noonu ngay war a ami projet nangam laa war a réaliser ren ren daal dama bëgg a réaliser ba bay naa fii la guddi waaw da nga def ko projet ba naa fii la guddi mais da nga koy def yitte def ko sas bëgg a fexe ba mën a réaliser daal dinaa fii la guddi baye boo nga tàmbalee ci ñaari naa fii la itam nag yàlla dafa mel ne entraînement la ñu boo bëggoon tey dama bëgg a def entraînement bëgg a mën a daw euh, bu ma xëyatee mën a daw fukki kilomètre doo xëy benn bis bi rek bëgg a daw fukki kilomètres yi boo xëyee kay dawal benn kilomètre delsi bu ëllëgee nga daw kilomètre ak genn wàll bu ëllëgee nga dawaat ñaari kilomètre bu ëllëgee nga daw ñetti kilomètre ba ba dix kilomètres yi mat boo ko dawatee duutu doon dara ci ceew julli gi boo nee tey damaa bëgg naa fi soogu saw tàngoor rek jóg de fukki rakk ak nangam bu wutul da am nangami fan yoo xam ne benn rakk sax dootoo ko julli waaw kon tàmbalee ci ndànk-ndànk defal ñaari rakk rek boo sonnee nga baax boo yëgee ne yaa ngi sonn rek bul forcé boo yëgee yaa ngi sonn rek bul forcé bàyyi boo yàggee def ñaari rakk yooyu ñaari rakk yooyu mu ñaari rakk yi moom nga def nga daal see teg yeneen ñeent boo commencé sonn rek bàyyi bul forcé noonu ngay mujj def ba mën a def fukki rakk ak benn yi yonente bi alayhi salaatu salaam daan def te sax dootoo ko yëg kon jaamu yàlla yi noonu nga ci eh, tàggate sa bopp ndànk-ndànk waaye nag da koy def yitte itam nag def ko projet bëgg caa egg waaye bàyyi noonu rek ne man nu ma mel baax na te adduna nag foo toll yaa ngi yor ay sémbu kooku eh, jullit bu dëggu ci diineem dëgg dëgg dëgg du ko def naka noonu bokk na ci jeexeeti ngëm yàlla gu mooy du xeeb kenn jullit du xeeb morom xam nga ne ñi bokk na ci lu baree baree bari luy tax duñ mën a ànd mooy dañuy xeebante dañuy xeebante ci wàllu judd diw man bokkuma fi ma juddoo moom juddoowu fa danañ xeebante ci wàllu alal li ma am ci alal amuko ko danañ xeebante ci wàllu xam-xam dañuy xeebante ci wàllu situation bu mu yor moom kilifa la daa jiite ay mbooloo yow nag dañ laa jiite yow su ko defee mu jàpp ne yow doo nawle borom bi ne yaa ayyuha allazina amanu ba tey yaa ayyuha allazina amanu rek lay andi laa xaw xawmun min xawmin mu ne yéen ñi gëm yàlla wenn xeetu nit wala kenn nit bu mu xeeb keneen nit mu ne wala nisaaun min nisaa ndax kat asa an yakunna xayran minkum xeet bi ngay xeeb neen amaana ki ngay xeeb nattukaay yi nga teg ba depp na yaa ko raw amaana moo la raw parce que nattukaay yooyu nga teg wala balul alal ji ma am diw amu ko kon diw di ma moroom yooyu wala bal fi jot wala mbooloo mi ma am wala daraja ji ma am déedéet borom bi def ne a yaxsabuuna annama numidduhum bihi min maalin wa banin nusaari'u lahum fil xayrat bal laa yash'uruun da ngeen a jàpp ne ma jox alal ak mbooloo raw la ñi ma ko joxut déedéet bu ngeen yaakaaree mbir mi juum ngeen mbir mi fu mu ne mooy inna allazina hum min xasiyati rabbihim musfiquun ki nga xam ne dafa ragal yàlla ba fu ñu tuddee yàlla mu tiit wallazina hum bi ayaati rabbihim yuminuun ki nga xam ne dafa gëm alquran ba fuñ ne ko lii la alquran wax bu dee lu ñuy def la mu jéem a def bu dee lu ñuy bara bu baax du ca discuter wallazina hum bi rabbihim laa yushrikuun ki nga xam ne du bokkaale ak yàlla dara wallazina yuutuuna maa aataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun ki nga xam ne day def li muy def ci lu baax ba noppi te du gis boppam parce que bari na ñuy jaamu yàlla mais day yàquwaat tax dañuy naw seen bopp ba daana gën naa fil la woor nga jaamu yàlla nga waaye mbooloo moo toog mu ne jàpp nga ne yaa ci gën waaw mbooloo moo toog mu ne loolu nga fas ci sa xol jàpp nga ne yow yaa ci gën loolu yaa ngi naw sa bopp day yàqu parce que iblis li ko rek mooy gis boppam ba mu ne ana xayrun minhu rek la affaire am yàqu ana yàlla moom boo ci kanam boo bakkoo ci kanamam rek yàqu la bàkk googu ne même boo ko waxul ci sa làmmiñ te fas ko ci sa xol ko ci sa comportement lu ñuy wax ci diine nga jàpp ne la ca jiitu moom bu ñu lay jiite julli nga jàpp ne yàlla ci gën a yey lu ñu cër bu ñuy wax bu nekk nga jàpp ne yow yaa ci gën a yey fas ci sa biir xol ne ñii yow li ngay def ci jaamu yàlla duñ ko def xeeb leen kooku yow ba tey bokkoo ci ñi raw waaye ñii def lu baax ba noppi dëgg la dinañ ko yaakaar waaye duñ naw seen bopp borom bi nag ulaayika yusaabixuuna fil xayraat wa hum laa yusaariuuna fil xayraat wa hum laa saabiquun nee na ñooñu ñoo gaaw jëm ci lu baax te ku melul ne ñoom ñoo la ci raw kon xeebante baaxul ndax yàlla suñu borom moo rawaatale cër yi muy joxe ci àdduna wa a ba'dahum fawqa ba'din darajaat yàlla bu ko neexoon ñëpp bari alal bu ko neexoon ñëpp bari xam-xam bu ko neexoon ñëpp yor ay pouvoir waaye moo séddalee àdduna noonu kenn ku nekk am lu mu la jox lu mu la liggéeyloo moo xam ne lii nga mën a attan waaye nag yooyu yooyu mu la jox boroom alal ji taxul mu gën ki ñàkk alal boroom xam-xam bi texul mu gën ki amul xam-xam lam koy gëne kay bu fekkente même que amul xam-xam ma ngay laaj di jëfe yow nga am xam-xam bi te jëfe woo dara boobaa ka amuloon xam-xam waaye moom la muy def lu ne dana ko laaj ñu wax ko ko mu dem jëfe ji boobaa moo raw moom la yonente bi alayhi salatu wasalaam ne woon rubba xaamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu nee na bari waa ne ko yor ab xam-xam yóbbu ko ci ku la gën a dégg xam-xam bi parce que xam-xam ku ko dégg da nga koy jëfe da nga nettali ab xadis buy soññe ci jaamu yàlla goo xam ne yow mosoo koo def yow yaa ko wax nag jaamu yàlla gi mais yow mosoo koo def moom mu jóg dem defi ko ci yow la ko dégg kooku la ko gën a dégg kooku yow théorie bi rek nga xam ne moom dem na def pratique bi moom moo la moo la ko gën a dégg bu boobaa kon moo tax bokk na ci jeexitali ngëm yàlla du ñu xeebante euh, bokk na ci jeexitali ngëm yàlla tam nag di aar saw làmmiñ ngëm yàlla ku mu déggu ci yow say wax da nga koy vérifier kenn du la yóbbaale ci ay wax loolu lay ñu tudde alxawd gis nga gaa yi dugg sawara bokk na ci bañ leen laajee ne leen lu leen dugal sawara maa salakakum fii saqar qaalu lam naku min almusallin wa lam naku nutimu almiskin wa kunna naxuudu ma alxaaidin wa kunna nukasibu bi yawmi ddin ata atana alyaqin léegi dugal safara gaa yi dugg safara dañ leen a posé question waaw lu ngeen def ba dugg fi maa salakakum fii saqar première ñu ne lam naku min almusallin daawul julli ñu ne ak lan ñu ne walam naku nutimul miskin miskin ku ñàkk daawuñu ko jox dara ñetteel ba wakul naa na xoodu ma alxaaidin foo wax ji gën a mës a xumbe garam place ba rek falan daan ne lu waaye yëkkati rek am nañ ca xalaat wax ju jóg ju am nañ ca parole doonte xaw ma ca dara nag waaye dinaa ci wax rek comme gaa koy wax rek dinaa ci wax ñeenteel ba nag dam doon weddi yowm alxiyaam wakul naa nu kasi kon na xoodu ma alxaaidin boobu wax musiba la ndax yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na inna rajula la yatakallamu bi kalimatin laa yara biha ba'san yahwa biha sab'ina xarifan fi nnaar rawahu Tirmisi nee na nit ki dana wax wax joo xam ne amalu ko solo waaye nee na wax jooju mi ngi koy xalab ci biir safara doxub juróom ñaar fukki at waaw distance boo xam ne boo ko doon dox da nga am juróom soixante-dix ans dog ko dox xóotaay bu tolloon ci biir safara danga wax benn wax rek mu xóot dugal la doon ci biir safara moo tax kon wax ku koy wax wala ku calculé bu baax moo tax borom ne yaa ayuha allazina amanu moom it loolu la andi de yaa ayuha allazina amanu taqullaha wa qooloo xawlan sadida ragal leen yàlla te ngeen di wax wax ju jub tegu ci yoon joo xam na nga koo natt bala ngaa wax xalaat ci xalaat bëgg a wax lu mu nar a jur ak ndax dëgg la am déet ba mu leer la ne am na njariñ wax ko moo gën bañ koo wax dañ ne sax même wax geeg bañ gee wax sa tolloo bul wax su fekkee soo ko waxee boo ko waxul yépp ñooyam képp li muy jur ñooyam kon nga bañ a wax moo gën na la leer ne wax gi moo ëpp njariñ ban gee wax nga doog wax kon na nga koy peese natt ko rawati nag su fekkee ne wax gi nag noppi ko gën a tee garaaw parce que ñett yooyu am benn li ngay a wax bañ koo wax a gën wala li bëgg a wax wax ko ak bañ koo wax ñooyam wala li ngay a wax wax ko moo gën bañ koo wax waaw foofa na nga koy doog a waxee su fekkee ne li ngay bëgg a am na njariñ loo xam ne bañ koo wax moom ëpp naa def kon waxal mais suñu tolloo sax nga noppi ngir nga mucc parce que wax dafa mën a jur moroom ma mën nga koo wax du jur dara mais beneen wax soqi ca bu jur leneen moo tax kon su fekkente ne njariñ li leeru la rek euh, faral nga noppi bokk na ca jeexit yi itam nag wattandiku ay moy wattandiku sàngara wattandiku carte gis nga sàngara carte borom bi tabaraka wa ñoom la boole benn aaya yaa ayyuha allazina amanu la jiital ba tey de yaa ayyuha allazina amanu innama alxamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali shaytaan fajtanibuuhu laallakum tuflihun mu ne yéen ñi gëm yàlla na ngeen xam ne sàngara ak carte ak xeetu carte wu mu mën a doon wal ansaab ak samp yi ñuy samp muy xërëm yi ñuy def xamb yi jibar yi nga xam ne bu ñuy faj nit dañ naan nañ ko sampal euh, ak kuur wala nañ ko sampal njaq di rendi ay deret di ko ca taqal di jël ay soow di ko ca tuur wala ñi nga xam ne dañuy gisaaneelu wala ñuy tënilu al azlam mu ne yooyu yëpp rëjji suñu min amali seytaan sobe la soo xam ne ci seytaane la jógee faj tani buuxu wattandiku leen ko gis nga kon jullit boo gis muy def yii lépp jullit la ba noppi di naan sàngara jullit boo xam ne ma ngay carte carte gi nag moo gën a te garaaw ndax sàngara sax moom danañ koy nëbb danañ koy nëbb jullit bu koy def itam dana ko nëbb waaye carte gi moom lañu mel na dañ ko te bakkaar bu araamee nga boole ci yow mel na dafa dagan booba moom dalay génn sax far ci biir diine te da ngay gis PMI soo borom de da gis ñu toog tak seen banque toog nga xam ne sax ay mu kallaf la ñuy doon yoo xam ne sax léeg-léeg da gis koo xam ne sax benn loxo bi kurus la ciy téye benn bi mu téye ci kayitu programme di di di xool ay ay mag ah koy gis booy gën di ko gis ci kii PMI kooku musiba la kooku daanaka lu xaraam loolu dañoo mel na ñoom dafa dagan te boo ko daganalee nag bakkaar ba dafay gën dafay gën a kon pas-pas bu wér dëgg dëgg dëgg dana poussé borom ci mu sori sàngara sori carte waaye sori itam njaalo ndax njaalo itam borom bi def xul lil muminin yaquddu min absari nga njaalo moom dafa garaaw borom bi waxul sax jëmmi waaye bu leen ko jege wala taqrabu zina la ca yóbboo muy bët parce que procédure bi fi muy tàmbalee mooy ci xol waaw procédure njaaloo fi muy tàmbalee mooy ci xol woykat ba wax na ko waaw nasratun fa btisaamatun fa salaamu fa kalaamun fa mawidun fa liqaaw noonu la ko wax nasratun nee na xoolay am fa btisaamatun daal di muuñ ñaari nit góor yi jigéen xoolante daal bu ñu xoolantewul woon kenn gisul kenn bu kenn ko ne sëggoon qul lil muminina yaxuddu min absaarihim wa yaxfasu furujahum wa qul lil muminati yaxdudna min absaarihinna wa yaxfasna furujahum dañuy dem kenn ku ne bi nga ne daaj daal ngay damm sab gis rek dem mais ku ne jàkk sa morom ngeen xoolante ku ne xool morom ma ngeen muuñ foofu la affaire ba tàmbali mu ne lu cay tegu nuyoo lu cay tegu waxtaan fa kalaam lu cay tegu fa mawidun rendez-vous lu cay tegu mu ne fa liqaa u daje kooku kon ca tàmbali ba nag moom la yàlla tere procédure bi fa mu tàmbali première pas ba la tëj waaw qul lil mu'minin yaxuddu min absaarihim waxal ñi gëm yàlla nañu damm seenu gis waxal ñi gëm yàlla ñu jigéen ku gëm yàlla la wax de ku yor pas-pas bu wér rek nag moo ko man ndax bànneex la banneex li ko ëpp doole koo éliminer mooy iman leneen lu dul lool rek daf lay daal di jekku parce que doomu aadama li ko ràññeet léegi mala yi du dara lu mooy iman bi rek doomu aadama buy buy ñàkk iman di mel ne mala yi mala yi bu buñ gisee luñ bëgg rek dañ ciy daal di dal waaw moo tax borom ne walladina kafaru yatamattauna wa yaakuluuna kama taakulul anam dégg kama taakulul anam ñi weddi yàlla dañuy bànneexu ak a lekk ka naan comme ni ko animaux yiy defee seetatuñ ca lu lu ñu dagan wala lu bañ wala ñu am ci kersa wala dara déedéet lu ñu bëgg ma bu ci seen bët di tege rek ñu dal ciy jëf kon li tàqale nit ki ak animaux yooyu bàyyi ma yooyu mooy imaan imaan bi rek moo mën a supporter am loo xam ne doomu aadama bi bëgg na ko waaye mu xam ne lii bëgg na ko waaye sañu ko imaan bi dox digganteem ak loolu loolu moo tax kon ku yor imaan bu wér rek moo mën a mucc ci loolu moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci addis boo xam ne Abu Hurayra solo na ko Buxaari yu génn ko mu ne laa yazni az-zaani xiina yazni wa huwa mu'min nee na njaalookat bi jamono ba muy njaaloo ngëm yàlla wala yashrabu al-xamra xiina yashrab bi jamono ba muy naan sàngara nee na ngëm nekku wala yasriqu xiina yasriq wa huwa mu'min nee na sàcc bi jamono ba muy sàcc ngëm nekku wala yantahibu nuhbatan yarfau nnaas ilayhi fiha absaarahum xiina yantahibuha wa huwa mumin nee na du siif fekk lu ñëpp bëgg nga ñëw siif ko jël ko ëpp doole nit ñi jël ko ñëpp di la xool nee na jamono ba nit koy def loolu ngëm yàlla nekkul ci ko kon nga gis kon ngëm yàlla ni mu amee relation ak comportement loo gis nit ki comportement bu ñaaw boo gis nit ki yor ko rek xamal ne dafa lié lool ak ngëm yàlla bokk na ci jeexiti ngëm yàlla itam nag yittewoo say doom ci di leen yar dañuy gis ñoo xam ne amuñ soxla ci seen i doom dañuy mel ne kuy dundal ay bayima waaw comme ni ñuy dundal ay bayima rek la ñuy dundale seen i lekk gaag ga dara du manqué fowukaay dara du manqué waaye wàllu yar ba def ko nit te doom sas bi la ci borom bi tabaraka wa taala sas comme yem mooy teg ko ci yoon woo xam ne dana mucc safara yaa ayuha alladina amano ba tey loolu la jiital yaa ayuha alladina amano xoo anfusakum bu ahlikum naara yéen ñi gëm yàlla fegal leen seen bopp safara fegal ko seen njaboot am na ñoo xam ne ci xoo an pësakom ji rek ci lañ yem te gis koo xam ne du manqué jàkka ja waxtu julli jote mu génn waaye kër ga fa la ñëpp kenn du dem jàkka ja góor ñi war a dem jàkka ja duñu dem jigéen ñi itam du toppatoo sax ba xam julli la ñoom de nam leen bàyyi woon na la leen di fekke waat te nag loola ku jàpp ne mën na laa musal itam nag njaboot gi comme yàlla dala ko sàmmloo dafa bokk ci li lay yóbbu àjjana sàmm njaboot gi caa génn rek yow doo manqué jàkka yaa yaa ngi jul mais njaboot gi sa yoon nekku ci déedéet yàlla dala koy laaj bu ëllëgee kullukum raai wa kullukum masulun an raiyati te su fekkente ne teg nga leen ci yoon woo xam ne yoonu safara la bakkaar boobee ñu am da nga am yow itam soo ca amee nag ñu boole kook la nga am ci tuyaaba ah, bu bakkaar ba ëppee nga dem safara su sa tuyaaba ëppee nga dem aljanna waaye moom seen bakkaar moom fokk da nga ca am seen wàll moo tax kon bokk na ci pas-pas bu wér yitte woo njaboot moo tax suñu borom bi muy wax ki ñu yar yarub l'islam suñu borom dafa andi ñaari résultat wu ñaari nit ki ñu yar ci l'islam su màggee nu muy mel ak ki ñu yar ci lu dul l'islam su màggee nu muy mel soo demee suratul aqab da nga ko gis daf ne atta isa balaxa daxu su demee ba jot kattanam mat mat xel mi mat doole ji mat wa balaxa arbaina tan mu am 40 ans 40 ans soo ko amee foofu la xel mi moom di mat dëgg xay na boroom ñaar fukki at ñaar ak juróom doole ji dana mat mais xel mi dana des parce que expérience bi manqué na mais dem am ñeent fukki at kooku am na kattan ñàkkagul kattan te itam am xelam dana ñor moo tax yonent yi li gën a bari bu ñu leen daan yónni foofu la ñuy toll ci as boobu la ñu leen di yónni parce que dafa laaj euh, bastatan fil ilmi wal jismi dégg nga bastatan fil ilmi jismi yàlla jox la doo ak force boo xam ne ci yaram la ak boo xam ne ci xam-xam la moo tax mu ne atta isa balaxa asuddahu su jotee force am nag wa balaxa arbaina sana mu am 40 ans lu muy wax daf naan rabbi ki ñu yar yarub diine su màggee ak lu mu mën a am du gis boppam de danaan rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an alay wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda yàlla maa ngi lay ñaan nga mbay ma sa xéewal yi ma am xam nga ki am 40 ans ma nga doon jàng mën naa am réussir na léegi mën am yor na place sa 40 dana fekk li nga doon def ci sa ndaw lépp pare na moom boobaa nag du bàkku naan maa am xam-xam ak maa mën a jàng ak maa am yi diplôme ak déedéet danaan lii yàlla lii ma am na nga ma may ma mën koo sant aw si am yi na ma may sama lépp di sant la parce que sant can mën naa doon cantuk làmmiñ dong mais cër yëpp a war a sant aw si am yi nag mooy yàlla may ma ma mën a tasaare cant gi ci lépp lu may def wala ma di ko wax rek ma sant la ci xéwal gi nga ma defal waaye ma sant ci samay way jur ndax it way jur yi ci ñoom la jaare borom bi moo ne woon aniskur lii sant ma wali waalidayka yàlla wax ne surat luqman sant ma sant say way jur gis nga kon kooku day sant yàlla sant ay waajuram léegi nag daldi tël tër nag projet moom ni mu bëgg a dunde nag xam nga léegi moom duutu gone léegi mu kàllaf la ak njaboot la yor leen mu ne wa aslih lii fii zurriyati yàlla yàlla na nga ma baaxalal sama njaboot waaw yàlla yàlla na nga ma baaxalal sama njaboot comme moom léegi commencé naa am njaboot ay waajuram moom yaroon nañ ko ba baaxal ko moom itam mu dal sasu moom it baaxal ak njabootam moom itam inni tubtu ilayka wa inni minal ki ñu yar yaru diine borom bi nee na loolu ka ca des nag mu ne wallati qaala li walidayhi uffin lakuma ka ca des nga xam ne yëriñ ko yarub diine way juri ña nga doon sonn ci moom école ya gën a seer ñu koy fayal yére ya gën a seer muy dem ay vacances ay Europe di dem su demee ba nekk mu kàllam loolu ñu ko doon defal lépp du ko gis daf leen di mer dana leen di wax waaw parce que lu mu gis keneen am ko te amu ko danaan yéen a ma tardal uffin lakuma mbas ma leen merde li lépp yéen a ma ko parce que xamul xamul seen valeur xamul àqi way jur xamul dara jàpp ne na loolu moom dañ ko ko war a defal par force ay serviteur am su ko defee nag kon day xeeb la ñuy def sa du ko gis moom def leen deful leen ma tous la leen di wax loolu seen droit la woon offil lakuma suñ koy jéem a waar nag mu ne leen dekki amul atata idaani ni an uxraj waxad xalatil xurunu min qabli ku fi dee doo dekki loolu leen di wax ñaata seen relation fi jaar waxuma yastaxisanillah naan ko amin inna waadallahi xaq fa yaqulu ma hada illa asatirul awalin mu leen li ngeen wax ay léeb ak lupp rek diine la rek ay ay léeb mu ne ulaika allazina xaqa alayhim alxawlu fi umamin qad xalat min qablihim min aljinni wal ins innahum kanu xaasirin moo tax sa doom bala ngay sonne ci di ko teg ci wenn yoon wu koy réussiral ci adduna njëkk koo teg ci yoonu alaxira ba pare naa koy faral di misaal doom ñaari projet nga ci am benn procès bi mooy su dee texe ah xanaa kenn ku ne bëgg sa doom bu dee texe dem àjjana mais sa beneen bi mooy su màggee tekki tekki dara ngi dégg ñu naan diw ku tekki la tekki dara mooy man dara mën a doon nit ku am solo ku mën a réaliser ay mbir mën a doxal ay mbiram kon ñaar yooyu la texe ak tekki waaw kon dëkkub texe am na dëkkub tekki am na dafa am nag yu fay yóbbu oto yu fa jëm dëkkub texe benn oto rek moo ko ragal garage ba soo fa demee benn oto fa am xam nga soo demee ci àll bi léeg-léeg da nga dem ci àll boo xam ne dañ naan la fii de benn oto fii jóge par par suba bu fi xasee jóge ba la fee ñëwati ca suba sa lay doonal bu la xasee raw moom fi ngay fanaan yàqu dootoo demati nga wut naa garage bi moom waxtu woo dem oto bu rang waxtu woo dem moom fekk oto bu rang bu dee texe nag benn oto ko rangal mooy diine diine moom bu la xasee rek ci mënatoo texe diine moom dong mooy jëm ci dëkkub texe pour mën a dugg aljana bu ëllëgee amul weneen yoon alal du fa tax a texe mbooloo mu bari du tax a texe situation boo am du tax a texe yawma laa yanfa'u maalun wala banuun illa man ata allaha bi qalbin salim lu dul ku ñëw yor xol boo xam ne mucc na xol lu koy muccal diine kon diine dong dong dong dong dong mooy tax a texe am maa nag tax a tekki nag tekki moom li koy tax a def bari na mooy dëkk bi am oto yu bari li nga xam ne oto yi ko warangal bari na oto bu départ beneen bari mooy métier yi métier yi sa doom jërul ngay yàkkamti da jàng am ne ba jàng ñu ngi naan waaw ñii de ñeneen ñu ne ñii de moom naru ñoo am place bu ñu màggee xanaa ay yalwaankat la ñu war a nar doon wala ay noddukat wala ay yooyu mais bañ paree ba dugg ci commerce wala dugg ca leneen comme yar nañ leen yarub diine dañuy jub dañuy gaaw a réussir ca lañ nekk parce que dañuy jub dañuy nangoo liggéey te dañ ko yàq ah opérateur économique yi gën a mag ci réew mi yëpp ñu ci bari jànguñu tubaab ñu ci baree baree bari jànguñu tubaab ca daara yi lañ nekkoon mais ñu ca boo ca génnee fekk yar nañu la ba nga xam ne yow fa ñuy yàq ñeme woo faa jaar ñuy fecc ñeme woo faa jaar ñuy naane ñeme woo faa jaar ko sax boo fa demee ñu saboté la te itam jomboo def dara liggéey bu dagan bu ne ñemee nga ko def rusoo ko rusoo ngàbbu fi ay butéel ay xotti saako romb nit ñi di ko jaay rusoo ko hmm? ndax damay wax ne daara boo gisee mu wuteeg yeneen yar yi moom dañ lay tàmbalee ci loo xam ne beneen situation bu ko tànnee dafa yomb bu dee beneen yar bi nag beneen école bi sa botiw na bu école bi mais léeg-léeg ñoom dañ lay def ci condition yoo xam ne am lu ko tanewaat day defe koo xam ne boo dee xale dañ lay sang ba nga set xotti la yére yu cher wutal la sàgg ci léeg-léeg oto lay déposé pour nga màgg am situation bu taw kañ bu ko tawee boobu day bëri day day jafe moo tax liggéey bu ñu la proposé nga bañ liggéey bu ñu la proposé nga ne ba may ko wax mu ne la moo tane daara moo tane la ma nekkoon de <laughs> parce que koo xam ne kooku loo ko jox mu jëm boo gisee ñi ñuy wax ñooñu naan ñii dañoo bañuñu dara nangam nangam mooy yar ba ñu leen yar la yaa bañu la di ko xam da nga daan wër di jeex waa naka lu ne nga di ca dugg kooku situation day yomb a baax ci yow lu ñu la defa na ngir ah lii de moom sama affaire baax na waaye kenn nag baaxal affaire am day jafe boobu parce que affaire am dafa teeloon a baax moo tax <laughs> dafa teeloon a baax dafa njëkkoon a baax boo ko bëggee yàqaat gannaaw bi rek day jafe ah xam na xale bu ndaw ci oto koy déposé mu sol yéreem yu rafet mel ne ministre bu bu bu yor saagam ah mais sëñ bi kooku ban place nga ko fara jox bu ko satisfaire kooku du yomb a satisfaire loolu nag mooy problème moo tax semeur yi foofu la gën a bare parce que métier yi bari na waaye yëpp dañ koy weesal boo wax ñu ne boobu mënuma koo liggéey man sama daa aw ma liggéey mais liggéey yaa ngi lu tax doo liggéey mais boo ko proposé mu ne la man boobu waruma koo liggéey intellectuel la du ma liggéey boobu waaye mais boo dee <laughs> loolooy tax parce que liggéey ya muy bëgg nag day jafe mais su fekkoon ne liggéey liggéey rek la moom kon daanaka doo gis kuy taxawaal saa boo xëyee moom gis loo mën yow kay moo nga bon sa peel léegi kay ak sa xootee na seen seen mbalit mi ma dajal leen ko gasal leen ko suxlal leen ko ñu fay la cinq mille francs nga dem parce que kooku danaa jur man man intellectuel bu dal ma di gasi mbalit kooku kooku xalaat xalaatuma ah, ah, boo gasi mbalit kon nag da dem ci kuy kuy gasi mbalit yooyu nga lekk ci dépense ak fat boo tuut loolu kon mooy wane ne yarub diine euh, mooy tax nit ki mën a dund ci biir société bi dundin boo xam ne foo mu toll day jariñ boppam di jariñ ñeneen ndax du xeeb benn métier boo xam ne bu dagan métier bu mu am lu mu kawe kawe itam nag du tax mu xeet ña ko amut ndax day xam ne valeur nit ki nekkul ci li muy am waaye mi ngi ci ndi mu mel bokk na ci mandargay pas-pas bu rafet itam bu wér mooy dëggu ci say wax ki yor aqida bu wér day dëggu ci waxam borom bi ne yaa ayyuha allazina amanu taqullah wa kunu ma'a sadiqin yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla ragal leen yàlla te ngeen ànd ak ñu dëggu ñi nit ki dafa war a dëggu dëggu nag du dëggu ciy wax rek da ngay dëggu ci say wax waaye dëggu ci say jëf dëggu ci sa comportement c'est léeg-léeg nit ki comporté woo boo xam ne du ni mel day bëgg dafa bëgg a naxe du ni mel ni mel du noonu jéem a naxe rek bëgg am nit ñi fu ñu ko teg ak lu ñu ko jàppee ba am mbir yu ñu ko koo confié ba mu jot ca loola doo ko nag feeñ waaye fooy dem fu ne nga présenté woo fa nanga mel bul sol col goo xam ne day nax nit ñi bul wax wax goo xam ne day nax nit ñi bul ànd ak ñoo xam ne wala ngay tudd yoo xam ne ndax nit yëg ca jublu waaw léegi koo xam ne buy wax di la tuddal ay kilifa sàngam ba ma recevoir ba ma gisee nangam su ko defee yow da nga ne ci kooku day kooku kilifa la kooku day moom weesu na yii na yii ko loolu nga yor a kus la bëgg a gëmloo ba nga ne moom na ko su ko defee ne mu jël ko yóbbu kon bokk na ci mandargay ku gëm yàlla te ngëm gëwér dafay dëggu ci ay waxam bokk na ci ay mandargaam itam nag day dundal jàkka day fréquenté jàkka bokk na ci mandargay ku gëm yàlla li nga koy xamee yonente bi alayhi salatu wasalaam moo ne ida raaytumu rajula yaataadu al masjid fashadu lahu bil iman nee na bu ngeen gisee nit mu sawar ci jàkka lool fu mu toll ma ngi koy fréquenté di dem ak a ñëw seedal leen ko ngëm yàlla daal di jàng aaya ba innama yaamuru masajid allah man amana billahi wal yawmil axir nee na kii dundal jàkka yàlla ndax dundal jàkka rek du tabax ko rek wala dafiy wante la tërike làmp dundal jàkk loolu bu ñu ko defal ba noppi tëj jàkka ja jàkka ja moom la borom bi naan wa man azlamu mimman manaa masajid allah an yuskara fii hasmuhu wa saa fi xaraabiha xaraab nee na ki gën a rëy ak tooñ koo xam ne jàkka ja da koy tëj jàkka yu baree bari xam ngeen ne muubal yañ fa def montar yu cher yaag tapp yu cher moo tax dañ koy tëj waaw yooyee la ñuy garde boo fa duggee sax xamuñu la sax ñu ngay taxaw ci buntu ba nga gaaw génn ba bañ tëj ko defe nañ buñ la fi bàyyee nga wàcc wala nga yóbbu leneen waxuma la nag ñu ne nañ fa bàyyi nit ñi ñu jàng fa xam-xam wala ñu def fa leen déedéet dafa nañ jàkka ji dafa set dafa rafet kenn warul fii laal dara yonente bi alayhi salatu wasallam nee na woon bokk na ci mujjug jamono nit ñi dañuy woo ci ku gën a rafet jàkka ak ku gën a moobale jàkkaam te nag duñ ko dundal ci nañ ko war a dundale mooy di ko julli julli goo xam ne jàkka ja ba mu rafet rafet julli ga léeg-léeg ay 3 minutes wala 4 minutes sax du ko du ko yóbbu ah bu rawatina bu dee julli gu ñuy bala ngaa xaajal ab fatiha moom jàng na fatiha yaa ko mel na ku ñuy dàq te buñ paree defuñu dara dara toog ci buntu jàkka ja di waxtaan mais kon kay war ngeen a mën a julli gi ngeen jox ko seen temps ba mat sëkk ne mel na dañ la a gaaw leen gaaw leen gaaw leen ah buñ paree nag toog li ko waral mooy tayela ne ci julli gi dañ caa tayel wa isa qaamu ila sala qaamu kusaala kusaala pas-pas bu wérul doo attan julli julli dafa metti julli borom pas-pas bu wér rek moo ko attan wa innaha la kabiratun moom julli dafa rëy illa ala alxaashiin lu dul koo xam ne dafa am ak toroxlu yëg yàlla ci biir xolam kooku moom julli day neex ci moom waaye bu dee koo xam ne pas-pasu ngëm yàlla dëgërul julli day metti ci moom da koy déranger danaan naa ko def gaaw ba jóg fi rek nañ gaaw gaaw gaaw likkite ko rek génn ci bokk na ci ngëm yàlla nag jeexitam ba tey li muy def su pas-pas bi wéree moom da ngay mucc ci seytaane suñu borom moo ne innahu moom seytaane laysa lahu sultaanun ala alladina amanu nee na ku gëm yàlla dëgg dëgg dëgg sa nga mbir seytaane du am ci yow aw yoon moo tax kon boo bëggee mu ci seytaane rek defaral sa aqida na sa pas-pas wér bokk na ca la muy jurit alhidayatu tawfiqiya yàlla dalay defal da lay jubal parce que jubal ñaar la jubal ñaar la benn bi moom la yonent yi man ak jàngalekat yeeg boroom xam-xam yi bi ci des nag yàlla nee na moom rek moo ko mën yonent yi luñ man jàngal la yonent bi seen daraja li muy kawe kawe liñ man mooy ne la la yàlla wax lii la yàlla bañ boo defee li mu wax ko li mu tere da nga dem aljana soo ko toppee dem waaye nag tënk la ci yoon wi ba doo ko mën a wàcc nag far force nga dem aljanna kooku yàlla rek nee na moo ko mën moo tax mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim man ngaa yoon wi jëm aljanna amaa nga teg nit ci yoon wi te du ko sañ a bañ a wàcc innaka la tahdi man ahbabta gis nga kon fii mu ne ko la tahdi fii mu ne ko la tahdi bii man nga ko bii mënoo ko boobu mu mën nag la wax ne dee leen ma ko ñaan moom la ñuy ñaan ihdina sirat al mustaqim yàlla yàlla nga nu tegal sa bopp ci yoon wu jub yàlla comme ci teg doo mën a wàcc boo bëggoon a mooy sax doo ko mën hidaaya boobu nag li tax nit ki am ko mooy mu am ngëm yàlla borom bi moo ne allahu waliyu lazina amanu yuxrijuhum min azulumati ila nuur yàlla mooy kilifa mooy péeteg ñi gëm yàlla dëgg moo leen di génn ci lëndëm yóbbu leen ci leer waxaat wa inna allaha la haadi alladina amanu ila siratul mustaqim yàlla mooy gindi ñi gëm teg leen ci siratul mustaqim bokk na ci li muy jur itam ab sabaat alal xaq yàlla saxal la ci dëgg ndax xam dëgg yomb na mais sax caa jafe léeg-léeg nga gis ku ne ci dëgg ba yàgg mu wàccaat ko wala yaasu billah yàlla ci yàlla musa léeg-léeg nga gis ko ndax dëgg dafa am ay ay jafe-jafe ab sabaatu alal xaq nag waaw nu arrêté ñu noddu insha allah Euh, bokk na ci jeexeeti ngëm yàlla kon liñ ko waxee mooy yàlla saxal la ci dëgg moom la ne yusabbitu llahu alladina amanu bil qawli thabit fi lxayaati wa fi l axira suñu boroom dana saxal ci dëgg ñi gëm yàlla ñu sax ci kàddug la ilaha illa allah ci di ko fas ak di ko jëfe ba ba ñuy faatu ñu mooy ñi nga xam ne bu ñu faatoo itam bu leen ko malaaka yi laajee ñu mën koo tontu fekk dañ cee saxoon ci bi ñuy dund waaye suñu borom nag moo leen ci dimbali woon saxal leen ci ndax néeg yonente bi sallallahu alayhi wasallam lay wax naan ko bu ma la saxalul woon yóbbu la walaw laa an sabbatnaaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila suratul isra nee na ko gaañ seen seeni programme ak ni ñuy campagne bu ma la dëgërul woon saxal la ci diina ji rek bootul des na la faat bi yóbbu la ci leneen da jàng jëm ci yéefar yi mu ne ko cey boo ko defoon idan la azaqnaaka difa alxayaati wa difa almamaat summa la tajidu laka alayna nasira danaa la mbugal mbugal moo xam ne dama koy multiplier fii ci àdduna ak ci alaxira dégg yonente bi alei salatu wasalaam nag mooy ñaan loolu moo tax julit bu ne war di ko ñaan rabbana afriq alayna sabran wa sabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin kooku julit bu ne war nga di ko ñaan yàlla yàlla na nga nu sotti ak muñ rawatina jamono jii dundu diine moom boo muñul doo ko def boo muñul rek wàcc yoon bi parce que lépp ay pression la ñuy def ci yow ci sa famille lay tàmbalee ci kër ga nga dëkk ci la ñu commencé di la xatal loo def lu ne bëgg koo teg ci diine ñu ne la loolu mën naa ñàkk boo nëgul ñu commencé la sanctionné ba ca société ba ba ca mbedd ma noonu boo muñul rek yàlla kattanal la bootul rek danga nga danga wàcc da nga mujj di yolomal di yolomal di yolomal ba far nekk ci sel yàlla na ci yàlla mos bokk ngëm bu sell li muy maye day tax yàlla aar la ay nit ña nekk di la fexeel ay nit boo demee ay nit di la yóbbu ci ay turi jibar ñu la di fa joxe say tur di la jéem a jibar di la jéem a xaatib yow yow yóbboo ci dara mais bu fekkee am nga tawxid moo tax ul yi ngay sonn ci naan damay ñaam la déedéet wutal tawxid rek amal tawxid bu wéy ba sëkk rek inna allaha yudaafiu an alladina amanu suñu boroom yàlla mooy défendre ñi nga xam ne gëm nañu yàlla fexe yi ngay fexe mu jëm si ci ñoom du yegsi parce que mi ngi mel ne ki tabax këram rabu mbalit jegewul këram ngay kos banti almet di sànni ci kër gi du tàkk parce que mbalit amu fi am naa ki nga xam ne ay bokkaale moo ne ci biir xol bi boo ko sànnee almet mu tàkk parce que am ñax a ko wër mooy ki nga xam ne amoo nag pas-pasu bokkaale ga buñ lay jibar mu lay mu lay jàpp léegi waaw da ngay yomba jibar da ngay yomba def ay affaires yu bare bare bare bari ndax dafa fekk lu koy lu koy recevoir daf fee nekk waaw dafa dafa am ci sa biir xol lu mën a recevoir li mu lay defal mais su fekkee li muy envoyé moom lu ko recevoir nekku fi du fi toog rajo bi émettre su fekkoon ne poste bu koy capté nekku fi li muy mu jëm mais su fekkee yaa ngi poste boo xam ne lu mu émettre mu capté ko kay li capté nag caaxaan yooyu la nit ñi def ak mbañ yeeg coxar yeeg kiñaan yeeg yëpp mooy sa xol yawet yore ko waaja lam lay iñaane yawit da ngaa iñaan kon kiñaanam googee day dal wala jéem a ji la jéem a jibar yawit da ngay jibar kon jabar gi day dal mais su fekkee yooyu muy def yëpp yow doo ko def ci ci moom lay wàññi ko dellusiwaat moom la borom bi ne illa man atallaha bi qalbin salim xol bu set wecc la yor moom boo sànnee dara it moom du jëm ci moom bokk na ca li muy maye moom pas-pas bu wér mooy day tax jullit ñi am doole ci kaw suuf jullit ñi day seen faiblesse bi ñu am yëpp ñépp di leen noggutu di leen néewal doole li ko gën a waral mooy seen pas-pas moo woyof pas-pas yi ci boppam jullit yi seen bopp lañu ñu war a réparer bala ñuy waxi noonaka ci seen biir la ñu war a defaral seen pas-pas ba pare waaye boo seetee li nekk ci biir jullit ñi kenn xamul lu mu toll lu soleeg diine ay nit ñoo xam ne ay nit dañ leen a teg daanaka jàppee leen comme yàlla bu ñu ñaan ñoom la ñuy ñaan bu ñuy liggéeyal leen wala jox leen alal moo leen gënal jaamu yàlla buñ nekkoon ci seenub liggéey bu yàlla buñ noddee waxtu yàlla wi ñu ne lañuy def kooka moo gën mais jullit buy def loolu fu muy jëlee ndimbalul yàlla te borom bi dana wa kaana xaqan alayna nasrul muminin man yàlla day warloo naa danaa dimbali ñi gëm yàlla ñi gëm yàlla waaye ñi seen ngëm yàlla feebar ñooñu yeyootuñu ngërëmul ndimbalul borom bi tabaraka wa taala borom bi ne dig naa leen ne dinaa leen may doole ci kaw suuf wa adda allahu alladina amanu minkum wa amilu salihat la yastaxlifannahum fi l ard kama staxlafa alladina min qablihim wala yumakkinanna lahum diinahum alladi irtada lahum wala yubaddilannahum min baadi xawfihim amnan sart bi mooy lan yaabuduuna nii laa yusrikuuna bi shay'an suñ borom nee na dig naa leen yéen ñi gëm yàlla ne danaa leen may doole ci kaw suuf seen diine ji dana dem ba ëpp doole ci adduna bi dominer adduna bi yépp waaye nag am na ci sart bu ngeen war a def nag am na lu ngeen koy jënd lu ngeen koy jënde booy lan jaamu leen ma te bu leen ma bokkaale ak dara yaabuduuna nii laa yusrikuuna bi shay'an kon buñ bëggee am doole ci kaw suuf duñ naan nañu wuti ay armes dañu wuti ay char de combat dañu wuti ay avion dañu wuti dëgg la yooyu yëpp nañ ko wut waaye nañ njëkk a waajal suñu bopp ci iman ba pare parce que yooyu yëpp buñ ko amoon ci iman bi amul parce que bari na ay jullit yu ko am fi mu ne mais gis ngeen ni ñu nasaxe am nañ réew yi jullit yoo xam ne arme boobu ngay wax yëpp am nañ ci lu baree baree baree bari mais ba ñu amul iman teewul ñoo gën a ñoo gën a ñoo gën a nasax ñëpp far kon gànnaayu jullit li gën a dëgër mooy iman la ca tegu ci li nga xam ne ngëm yàlla gi dana ko def pas-pas bu wér bi mooy benn la jullit ñi jullit ñi suñu bëggee nekk benn ay règlement intérieur rek yooyu du leen mën a bennale li leen di bennale mooy al iman innama al muminuuna ixwatun iman réseau la boo xam ne jullit bu ci branché rek fu jullit mën a nekk ci àdduna bi da ngeen di déggante seeni xol mooy yëgoo comme réseau téléphonique bi ni mel soo ci xasee branché ka ne ca Allemagne wala mu nekk ca Siin boo composé mu sore këram waaye yow mi branché ci réseau iman itam fi mu ne jullit ba mu mën a nekk ca Siin tey bu ko bu amee dara lu koy metti wala xéewal gu mu am da koy da ci yëg bànneex ci sa biir xol loolu mooy réseau bi leen boole su amee lu ko naqar itam naqar woowu da nga ko yëg ci sa biir xol innamal muminuuna ixwatu kon iman bu ma sëkk tawxid loolu rek moo mën a benn la jullit bi ci mujj naataange muy àdduna ju neex koom-koom itam tawxid moo koy maye moo tax ku bëgg a redresser sunu réew yii ci wàllu économie te boole woo ci ñiy jàngale diine bu gisee sunu réew yi li ko gën a tardeel mooy dañ ne ñiy jàngale diine bokkuñu ci ñiy de société bi moo tax état bi jëlalu leen benn sars doo ci dégg ci budget bi benn état boo xam ne dafa jëm ci ñiy jàng diine waaw fu ñuy jàngee alxuraan wala fu ñuy formé ay imam wala fu ñuy formé ay waaraatekat yooyu yëpp boolewuñ ko seen bi parce que nee nañ ñooñu duñ facteur de développement dañuy tardé sax développement te ak ñoo nekk facteur de développement ci réew mi parce que bari waa na tey pas-pas yu yàqu yi li muy yàq ci économie réew mi kenn xamul xoole li muy jël ci temps wu nit ñi duñu liggéey xew-xew yuñ fi keree tudde ko turu diine bu pas-pas yi leeroon ñu ba ko ñi seen pas-pas leer duñ ca de pas-pas yooyu ñaata bis bu set feet la bis bu set gàmm la bis bu set màggal la temps bu muy jël lañ cay rey ci ay nag transport ba cay dem am na benn mbokk bu defoon évaluation bi ne am na ñaari xew-xew yu mag yuy xew ci réew mi yoo xam ne jërul tudd mais ñëpp xam nañ ko mu ne benn bu ca ne boo seetee ñay dem ak ñañ cay fekki du manqué 3 millions personnes 3 millions boobu nee na boo calculé woon kenn ku nga séddu ko dépense am 3000 francs 9 milliards lay doon 9 milliards waaw 3000 francs rek nga wax de maanaam 3000 nga dirisé leen ko ñoom ñëpp ne kenn ku ne daal 3000 francs la dépensé ca lañ fay togg ak nag yaag paas yaag baas yay dem ak carburant baag yépp nga calculé kenn ku ne 3000 francs la ci am loolu 9 milliards lay doon loolu nag mu am ñaari yoon ci at mi ci lu jege waxuma ne yu sew sewaan yooyu am mais ñaari yooyu rek muy 16 milliards par at. te ci turu diine mais loolu su pas-pas yi la yoroon bañ ba lool boobu xaalis boobu xaalis fu muy jëm moo tax ku jàpp ne mën ngaa redresser sa économie gu réew mi te doo ci boole ñiy leeral aqida di jàngale diine ba mu leer ci boppi nit ñi doo dem fenn baye boo faculté bu leen neex expert bu leen neex baye boo ñu indi lu ñu tëral ci ay calcul boobu dana posé waat ci pas-pasu nit ñi dana ko yàqal da teg fee benn benn directeur de société jox ko ay milliards benn waaye ne ko ma lee boo neexalee cent millions yi mën ngaa lekk bi doo feeñ waaw jox ma cent millions rek yow ma ma defal affaire nga lekk milliard ok gaa yi lekk ay xaalis yëpp dangay def dañ koy lekk ci fi nooru benn waaye leen koy ñemeloo genn wàll gi dañ koy weexle dañ koy weexle kooka nag boo fa jëlee woon koo kenn di weex weexle wala kenn gëmatu ko moom ku ñu jox ab liggéey nga liggéey ko correctement yaakaar ci sa diggante ak sa borom loolu day suqali réew mi kon li gën a mën a andi naataange mooy pas-pas moo tax bu rabbi ne walaw anna ahlal qura al wattaqaw la fataxna alayhim barakatin min asamaai wal ard nee ñi dëkk bu ñu gëmoon yàlla ragal ko mu ubbil leen bunti barke kon naataange ak xéewal ak jàmm ak bennoo lépp ci aqida rek lañ ko mën a amee wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain kon bañ julli ba pare doo nga dem ci laaj yi incha